ausu billah bismillah inna waliyallah nawwir fuaadi wa yasrah sadri waj'al jihaadiya ka yawma badri wala yabaarik fil baniina wal banaat bi sooratin awwalo al aadiyaat suxli bi jaahi wuluuda munjiba tadiru aarifan aliya martaba mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki Sénégal mbokki àddina bi waaye mbokki Touba mbokki Bawol ak li ko ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di balu xaq ñu ngi leen di bal àq tey jii ci talaata ji tombeek ñaari fan ci kas rajabin ñuy siyaar aka nuyu seex muhammadul muntaxa di ko ñaane yàlla mu yàgg fi lool ak wér di ko wax ni ko fa dum waari sa nuuxan wa tamim saniinahu saxiixan muaafan jaabiral asmi bil kasri yàlla ko yàlla def moom def ko ci mbooleem njaboot seexul xadim gi yëpp noonu lañ koy ñaanele mbooleem njaboot sëriñ Tuubaa yi nga xam ni ñoo toog seen tooguwaayu waajur ya ak ñi toog seen tooguwaayu maam ya ak ñu nu yëlif ñëpp nag ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñaanal comme ñaan googu ñu ñaanal Seex Maodo Muntaxa yàlla daal ci ñoom ñëpp waaye noonu itam la ñuy siyaare ak a nuyu mbooleem xulafaa yi nga xam ni ñoo toogal seen waajur ak seen maam yi ci seex yoonu murit yëpp bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu fenn waaye noonu itam lañuy siyaare ak a ñaanal mboolem xolofaaw turux yi Sénégal gépp bàyyiwuñ ñenn mbokk yi seen émission xew-xewu jamono dellusiwaat na tey jii ci talaata ji vingt et heure trente ba 23 heures ngi ci ànd ak seen mbokk seen xarit oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdawsi min al xaqi ila al xaqi xatta ataani yaqil incha allahu rabbi di siyaar baax nag suñu kilifa gële ca Touba Daaru sëriñ Bassirou Dieng di suñu xarit di suñu soppe di suñu wëllëre di suñu sëriñ di suñu lépp ñoo ngi koy siyaar baax di ko ñaane yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye noonu itam nañ koy ñaanale suñu wëllëree ci Touba Firdawsi di Serigne mooy di suñu wëllëre di suñu soppe suñu xarit di siyaar kilifa kër gi sëriñ Mahamadou Diop Thiat di ko ñaane yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér yàlla sàmm ko taxaw ko ba lii mu jiite dara bañ koo xajamal dara bañ ko yàq bi jëy si di wujut di jaajëfal baax a baax suñu technicien bi nga xam ne moom lañ jàkkaaroo muy Cheikh Mourou Fadel mbokk yi seen émission xewoo jamono del siwaat niñ ko baaxoo di defee saa su ne rawatina talaata ju ne bu heure bi jotee muy 21h30 ba 23 ngeen ci ànd seen mbokk seen xarit oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdawsi min al xaqi ila al yaqiin mbokk yi tey jii nag ñu fa yéene rek waxtaane benn tomb boo xam ne suñu ko bàyyee xel mën nañ cee jariñu mbokk yi loolu mooy lan mooy li ñuy wax tooñ tooñ ndax kët toll nañ foo xam ne mbokk yi yaakaar naa ni tooñ gone yi ndaw yi sax xam nañ ko gone yi soog a judd sax xam nañu tooñ ndax tooñ dafa yaatu dafa rëy te it ci société bii nekk muy senegal tooñ gi day commencé ca kaw ca mag ña bu ma waxee ñooñu mooy kilifa ya di wàcc di wàcc ba ci nit ordinaire yi di wàcc di wàcc ba ci xele yi kon tooñ lu rëy la te it bokk na ci ponk yi gën a rëy ci ñu war koo moytandiku yonent sallallahu alayhi wasallam dénkaane ci ba tàyyi ci ñu moytandiku ko bokk yi léegi nag mooy lu fees dell sunum réew taxawaalu nappante ëpp doole nit wan ko ko alhamdulilahi jasili neexma wasalaatu wasalaam ala rasuli rahma maa saairi alihi wa asaabi aimma wa ataai li qadimi rasuli alkaasil qumma wa atluba ridaahu kama asa umara umma mbokk yi nañu bàyyi xel ni diine ju nekk du diinay taxawaalu du diinay tambaambalu diine la joo xam ni dafa am ay organe dafa am jëmm am ruux organe yi nag mooy cër yi mbokk yi diine la joo xam ni mboolem yonent yi fi ñëwoon sunu borom di leen wax ni mooy leen ci diine lislaam nga xam ne yonent bu fi mës a ñëw diine lislaam nga woote ba kan ñëw dina wutu ba àddina sosoo ba fi ñu toll mbokk yi sunu borom dafa bañ tooñ mbokk yi réew mii di Sénégal nag tooñ yaatu fi ba fi mu toll nii damay faral di wax ni ku àdduwul la nga atte kenn muñ dara fii réew mi toll ku àdduwul la nga atte ñëpp a ci am réew la moo xam ne jaxasoo na réew la moo xam ni ku am xel tiit nga ci réew la moo xam ni bari na ay tolof-tolof waaye mbokk yi réew la moo xam ni boo néewee doola man ngaa dem gas sa paxum bàmmeel te xam ne dee gën sax dund ci yow mbokk yi ban réew lañ nekk wala mbokk yi ñun ñooy ñan yonent bi sallallahu alayhi wa mbokk yi dafa waxoon ni innama boostu li utammima makarima axlaaq bu leen yaakaar ne dara andi ma ci àddina bu leen yaakaar ne dara tax na yonent sallallahu alayhi sunu borom subhanahu wa taala bu leen yaakaar ne dara tax na yàlla ni ma doxal mission bii lu dul benn mission képp laa am muy mission bi ma leen war a defare te boobu mission mooy mottali jikko yu rafet yi mbokk yéen jikko moo rafet fii fu mu toll nii mbokk yi ñii ngay gis ñuy xastente ñii ngay gis ñuy ŋàññente ñii ngay gis mel ni ay bàyyi ma mbokk yi est-ce que ñii ci ñoom lañ war a jël référence comme ni ko jëloon ci yonante bi sallallahu alayhi wa mbokk yi dañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li tax yàlla yónni ko mooy mu mottali al makaarim al axlaaq muy jikko yu rafet yi yi nga xam ne yonent fu mu sa ñëw da ko koo yor yonent bu yàlla mu sa yónni da nga koo gàlloo yonent bu mu yàlla mu sa yónni dafa nekk ci yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ñëw makaarim axlaaq yooyu mbokk yi dafa mel lu supprimé wu dafa mel lu deñ nit ñi amatul kersa amatul lu ñu bëgg ci lu baax amatul lenn luy bañ ci lu bon yonent sallallahu gis jikko yooyu ni mu bone ni mu yàqoo mu ni dan maa yónni ngir ma mottali jikko yu rafet yi mbokk yi jikko yooyu nag li ko dalee ci yonant bi ba ci saxaaba yi ba ci taabiina yi ba ci taabi taabiina yi ba ci ñi nga xam ne ñooy borom njër yi ba ci ñi nga xam ne itam ñoom ci ñoom lañ jëlale soo mooy ñi nga xam ne ñoon wax li yonant bi wax waaye ba ci ñi nga xam ne ñooy ahlu tariqa nga xam ne ñooy nit sufanke yi ku fi ñëw rek sow ñooñ da ngay fexe ñu dund makarim axlaax mbokk yi mbokk yi la mooy makarim axlaax mbokk yi makaaru axlaax mooy ay jikko yu tànn ay jikko yu rafet ay gis jikko yu sell jikko yoo xam yàlla bëgg na ko yonent yu bëgg na ko mbooleem ahlu samawaat wal ar dañ koy bëgg mooy lan muy malaaka yi nekk ci kaw asamaan dañ koy bëgg malaaka yi nekk ci dañ koy bëgg malaaka yi ànd yow dañ koy bëgg loolu mooy al makaarib al axlaax makaarib axlaax yooyu nag mbokk yi day wàlle day wàlle ñu baax ñi fi nekkoon dañoo jëlee nit ñi teg leen ci mbaax dégg leen ciw yoon gindi leen tarbiya leen léegi nag gisatoo ku la gindi gisatoo ku la tarbiya gisatoo ku la wan dëgg ay naxaate ak i tappale ak i caaxaan rek rek ci réew mi ci côté yëpp nag côté boo yaakaar ba ni bii côté moo tari baa yées fan lañ jëm mbokk yi bu dee ñu ni woo ay politiciens doo denc di wax ci ñoom ndax leen rek laa yaakaar muy suñu bopp taala benn yóoraay la am mu seexul xadim ragaluma du dund ragaluma dee ragaluma kaso ragaluma dem sama kër lépp laa yemale naa nekk ci dëgg rek ba karama fi joge ak lu mën a xew rek naa nekk ci dëgg ba xam ni xam ngeen ni réew mii koo gis ak ni ñu ko bàyyi woon démb xam ngeen ma mel ni sofe deux réew moo xam ni dañu naa ay kilifa yi diine mënuñu ko lim ni ñu baree kilifa yi diine fi tëdd réew moo ni ay kilifay aada yoo xam ne dañoo bañan nangulul woon tubaab bi ngir bëgg seen deret sàmm seen réew sàmm seen ngor ngir lan ngir tubaab bi du leen gañal si benn côté nga xam ne dàq ay tubaab wat nan ay tubaab ay nel dugal nañ ay tubaab néegu góor ngir lan ngir jom Lat Joor def na ko fii dugal na ay tubaab néegu góor ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay ay joram yi jom la noonu ñu nekk ci réew yi mbokk yi mbokk yi ñooñu bu nee ñii ñooy say maam xanaa war ngaa am jom mbokk yi mbokk yi xoolee réew mi ñun ñu suñu maam mais ñun jëngatuñ ci loolu xanaa kay dañuy yaataayu mel yu neexee kenn ku ci nekk yaa xool nu sa mbir jege. adduna nag bu dee doxee noonu réew moo xam ni ëllëg fa mu jëm kenn du ko wax bu boobaa nag ñëpp taxaw naa fooguñu ko woon fekk ñun ñëpp ñoo ko def kenn ku ci mucc amut kenn ku mucc ci li amut ki war a wax na wax ki war a jëf na jëf ndax yii ñu gis ay munkar rek la xam ngeen ni tey bu ngeen gisee tey suñu mbokk politiciens yii nga xam ne tey yi mun ñu leen a seetaan ndax du ay référence yow nit koo xam ne bu ñu tegal li nga waxoon démb ak barki démb ak sa waxi tey day mel ni yàlla ak yéeli képp ku la topp ca loo naa leen topp na ci lu bon topp na la ci lu ñaaw topp na ci loo xam ne ba kanam dong nga ko neex waaye xam ne liu dëkk nañu yóbbu ñii nga xam ne tey si misaal ñoo nekk ci gouvernement bi tey jëli leen seen waxi démb ya ñu yóbbu leen vaar da ngay tudd yàlla mbokk yi da naa kii du ki waxat lii léegi nag kon ban nit ngay jàpp léegi ban nit ngay téye ban nit nga naa kii mooy nitu dëgg ba nit nga naa kii moo am xam-xam ba nit nga naa kii la war a jox réew mi kan kenn dootu la doy fu mu toll lan ay naxaate ndax lan ay kàcc ndax lan bëgg ñu fal la wala bëgg ñu jox la dëgg wala bëgg nangam ak nangam wala alal àddina lu ko fi jar mbokk yi alxaqu xaqun dëgg-dëgg rek la doon waaye nag wal baatulu baatilun neen neen rek la a doon ak luñ ko forma forna luñ ko rafeta rafetal ñi nekkul ci dëgg xam na ñi nekku ci dëgg mais ñi nekk ci dëgg xam nañ ko ñi ànd ak ñoom xam nañ lii mooy dëgg mbokk yi sunu borom subhanahu wa taala alquran boo gisee lim ci indi ci ay ayat ci li ci wax ci tooñ kenn xamul li mu ni mu bare ayat yu bari yoo xam ne sunu borom àddu na sunu borom dal na ci kaw nit ñi ni leen mooy tari ku tooñ bu ko xeeb tooñ catastrophe la tooñ ni ko gën a garaaw amul ci kaw suuf mbokk yi wala taxsibanna allahu qaafilan bi maa yamalu zaalimuun amma yamalu zaalimuun sunu borom nee na tooñkat muy politiciens yi seen wax yii ñu wax te dara ci dëgg sunu borom nee na bu leen yaakaar dama leen bàyyi fii ci Sénégal ñu yàq réew mi yàlla nee dama leen di yéexa rek kañ innamaa yu'axiruhum li yawmin tashxasu fiihi al-absaar sunu borom nee na dama leen di yéexe bàyyi leen ñu nekk seen i tappale bàyyi leen ñu nekk seen i wuruj bàyyi leen ñu nekk def lu leen neex sunu borom ne waaw ngeen yaakaar yéen waa Sénégal dama leen seetaan yéen population bi yàlla nee duma leen seetaan de duma leen seetaan ñu leen yóbbu fu ngeen xamut yàlla nee na damay bàyyi ba ñu yaakaari lii ñuy wut ña ngi koy am sunu borom ne ma na ma ma ma suruxal suruxal leen suruxal leen ba dootuñ ko taal yéen ngi nekk ca kon nag mbokk yi loolu mooy dama leen di bàyyi bañ bis ba nga xam ni télé lépp di leer mbokk yi loolu ma ngi suñu kanam yàggatul bis bi yàlla di wuññi lépp lépp leer yow ma tubla sarair fa maaloo min quwwati wa nasir mbokk yi sunu borom nee na bis nga xam ne kenn ku ci nekk danaa la wan la nga doon nëbb xam ngeen ni ñii lii ñu nëbb bu feeñee àdduna tukki lu ko fi jar ci àdduna lan mooy nguur lan mooy état lan mooy lan lan mooy lan lan mooy lan nit ki na am ngor nit ki na am fulla nit na am fayda ci diineem tim réewam ci nangam ak nangam réew mi na kenn mënta tee ñu wax fi dëgg la fekk ñu ngi dund buñ faatoo xam loolu yàlla dogal waaw képp nag waaye la fekk ñu ngi dund deen wax dëgg ndax itam duñ dund ci tappale di dund ci noxa sunu noona ngir lan ngir alali àdduna wala ngir nangam ak nangam xalaatuñ ko xalaatuñ ko ci àdduna moom kay dañuy dund ci dëgg ba lu yàlla dogal ci ñun rek loolu moom yabu ku ku yaakaar duñu wax dëgg yabu nga noppi kenn mënuloo tee wax dëgg ci àdduna amut képp na koo xam ne yor nga say pexe yor nga say tappale loolu la ñu wax defal doy loo doon yàlla te yàlla doy nanu xasbuna allahu wa ni'mal wakiilu xasbuna wa ni'mal wakiilu yàlla rek moo doy du kaneen kon nag mbokk yi ndax ki ñu yaakaar amuñu ku nu moom muy Sëriñ Tuubaa ci suñu borom la wakiir ba am li mu te ñun moom la ñuy roy du keneen royuñu keneen ku du Seexul Xadiim waaye daal mënuñoo gis ay catastrophe yu ñaaw ci réew mi yu bon ci réew mi wax ju dul dëgg wax tey weddi suba sa waxi démb ko teg ak sa waxi tey ak sa jëfi tey da nga naa lii lu diw ba pare ñu noppiwaale ko mënuñu ko sunu borom ba nuy bind ak bay ba nuy sàkkloo xam-xam dafa bëgg ñu teg nit ñi ci yoon teg leen ci dëgg bunu ko mënu kon bañ a xam am xam-xam moo ko gën suñu ko mënu bañ a jàng gën suñu ko mënu réer ba dee sax moo ko gën mbokk yi nañ waxante dëgg wax na ni ñii nga xam ni lii ñu def ay tappale lañ ko teg yaakaar nañu dañ leen di ndax yéen askan wi yàlla nii naxuñu leen de dama leen di yollu ngar dama leen di bàyyi ba bis ba nga xam ne ca la feeñ waaye bokk yàlla yemul foofu yàlla nee na nit ñi mun yaakaar ni tooñ naa leen lu tolli benn sibre wala ma tooñ leen lu tolli otom yàlla nee na lu leen dal yéen a ko teg seen bopp inna allaha la yaslimu naas say a walakin naas anfusahum yaslimuun yàlla nee na musuma leen a tooñ musuma leen wax lu ma dul def musuma dox ci seen i vie waaye yéen ci ma am yéenay tooñ seen bopp yéen a may wax lu ngeen gëmul yéen a wax lu ngeen deful sunu borom nag bu ngeen defee loolu force ma daal seen kaw mbokk yi nañu bàyyi tooñ nañu bàyyi tooñ mbokk yi sunu borom leeral na ko ci alxuraan baax noonu yéen ñu ni nee ngeen gëm ngeen ma ku gëm a tax ñu wax nag kon ku gëmul yàlla yaa xam mais nag ko ni nee nga julit nga sa baay di julit sa maam say mbokk di julit nga yaakaar sunu borom subhaanahu wa taala yaakaar ni ëllëg di nga dee yàlla dekkal la taxaw yow dong yàlla wax la yow yaay diw nga ni mën a diw boo demee ba lànk sunu borom ni al yawma naxtimu ala afwaahihim wa tukallimunaa aydihim wa tashhadu arjuluhum bimaa kaanu yaksibuun képp koo xam ne xalaat nga bis boobee di nekk ci dëgg nekk ci lu njub ba ëllëg ak da ngay faatu boo faatoo lu yàlla def ci yow neex na la waaye nag yi mënuñoo nekk ciy tappale nekk ciy wuruj ak fi naxa naxa sa ñu bëgg koo dëggal bëgg rafet ak di kenn nit warut ragal kenn ku du yàlla yàlla rek ma ta ragal koo ragal yàlla ragal ndax yàlla doo ma ma ta ragal wala bu ragalu yàlla yàlla bind na lu ragal yàlla yàlla bind na loo ragal kon nag mbokk yi nañu féete foofu alquran day leer la nañu ko yaa ayyuha llazina amanu li ma taquluuna maa laa taf'aluuna yéen ñi ni nee ngeen gëm ma lu tax ngeen wax lu dul dëgg na a noonu den appliqué li ñu digal yéen a noon di nga di leen def li nga digal yéen a noon nangam yéen a noon nangam loolu ngeen waxoon defu leen ci dara mbokk yi ñun ñëpp xam nañ li ko kenn ci ñun koo xam li nga waxoon yàlla yaa ci bëriwul mbokk yi lu waral loolu lu xew nañ ñu ko wax su fekkee ne woon nekkatul ay julit nan taxaw def conférence de presse ni ko yow yàlla ka ñu nekkatul ay julit su fekkee dañ koo gëmatul itam nan taxaw woo presse bi ñu ñëw ñu ne ko ñu yow yàlla ka ñu nekkatul ñu la gëm su boobaa yàlla day xam ne doxal ak ñun bu ne dee rey rey ñu bu ne tukkal at la tukkal at la mais mënuñoo ne ci réew mi nekk ci ay toppaleeki ay caaxaar lu leex nit def lu waaye neex wax réew moo xam ne ku fi dëkk tiit nga kenn xamatul foo jëm kenn sa njaboot dëllatul yow sam xel dëllatul tiit nga ci àddina tiit nga ci réew mi ba pare ñun ñëpp ñu koosal bara suy loxo ko def itam xam ngeen mbokk yi dafoo dëgg nekkoo ci dëgg ak commando nag kun la ma ne woowe mbokk yi nañu xam ni alquran dafa yàgg a dox ci yooyu da cee yàgg a wax ci a aayaat yu leer yoo xam ne toujours day leeral ni ñi rikk waay xool leen ñi leen fi jiitu topp alali àddina ba ñàkk xool ñi leen jiitu woon ñi leen jiitu woon day lu ne def nañ ko ci àddina lu ne waaye teewul dama leen a bugal ndax siirub tooñ sunu borom wax na waaw xanaa da ngeen a xoolul awalam yasiiru fil ardi فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبل من حبلهم كانوا أصد منهم قوة وأثاروا في الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليسلمهم ولكن كانوا أنفسهم يسلمون الله أكبر mbokk mbokk yi allah akbar alxuraan de mbokk yi sunu borom yéen waa xanaa doxu leen ci pays suuf yi xanaa doxu leen ci pays suuf yi afalam yasiru allah akbar allah akbar awalam yasiru xanaa doxulee ci pays suuf yi ci àdduna bi ngeen xool bu ko defee ngeen jàngat xool ak jàngat bokkuñu sunu borom ne bu waa faree suru ngeen jàngat da ngeen di jàngat allahu akbar yàlla nan la ni jàngate mu ne kayfa kaana aaqibatu llazina min qablihim gaa yi nga xam ne ñoo leen jiitoon rek waaye xool leen na ma mujj ak ñoom mbokk yi ay na aat mbokk ay na samuud mbokk yi ay na xaaroon mbokk yi ay mbokk yi ay na walid ibnu muqira mbokk yi ana abu lahab ana abu jahl ana ana ana ana mbokk yi mbokk yi ay na namruud ay na ay na ay na ay na moom mi mën malakal ar ñoom ñëpp anañu mbokk yi ñii mën a tuddal ay wagaboo la ñu wan ay bandi la ñu wan ay kàccoor la ñu wan te moo mën nan suuf yi ko nu leen neexal ñu ba terme bunte see yëpp li yarhamukallah sunu borom ne alag naa leen te kenn mënu koo faj ba tey jii ma wax seen yar yaa ngay daal te kenn ko faj allahu akbar ba tey jii may wax seen yar yaa ngay daal te kenn ko faj mbokk yi kon àdduna lu fi jar lenn li lu fi jar tooñ nit lu fi jar tëj nit ci lu dul dëgg lu fi jar wax nit lu dul dëgg lu fi jar lekk alali nit lu fi jar rey nit ci lu dul dëgg léeg-léeg ñu ne diw faagaagal diw ma ne mais moom anamu nekk suuf saa ngi koy modd kenn xamul fan la jëm bis bu ne rek suuf day gën a modd xaaroo na mbokk yi nga nga war a gis loolu xalaat ci jàngat ci nga xam ne dundu àdduna dundu gu néew la rawat na dundu xeet Seydina Mohamed nga xam dafa gàtt waxaat na ni sama dundu xeet kat paasewul diggante juróom-ñaar fukki at juróom-ñaar fukki lu koy yées ak lu koy yées jëm suuf yow mu leer lay téeméer at boo dégg ko dund ba ko kenn dundat ah te fii may wax yow yow mi xëccoo ak di tooñ ak wax loo neex yaa sa juróom-ñaar fukki at wala yaa ngi sa juróom-ñaar fukki at wala yaa sa juróom fukki at ak nangam yow war na si ngaa xëccoo leen a doon laax nag jëmale wax ji kenn nag képp koo xam yaa ngi ak koo a tooñ bokk nga ci wax ji ak koo mën ak koo a jaay alal wala nga doole wala nga jaay ko maa nangam maa di ko tooñ mu leer yow mi yaa def ak tooñ moom nga wax ji ak koo mën doon nag yow yaa sa ñeent fukki at yaa sa juróom fukki at yaa ngi sa juróom fukki kat xam nga ne lee nga dee loolu xam nga ko baax a baax yonent bee ko waxat sama xeetu du dund lépp loolu juróom-benn fukki at jëm kaw juróom-ñaar fukki at passé na jeex na boo fi gisee ko am juróom-ñaar du man dara boo ko joxee lekk du lekk boo ko joxee naan du naan ñu ni màggat na te juróom-ñaar fukki at dong la am xeetu njëkk yéen daa dund ñetti téeméer at ñeenti ñaar téeméer at ah yonent yàlla nu ñaata at junni ci xeet yi gën a néew ak nga nekk mel ni lu ko téyetul lu ko waral alali àdduna béy àdduna koo fu doole war ko ko da ngay waxal nit fii mu ne dinaa la tëj da ngay waxal fii mu ne ko dinaa maa man maa la tooñ te dinaa la tëj loolu foo ko teg mais boo ko tëjee tam ëllëg a ngi ñëw ka tax nga tëj ko ak yow mi ko tëj da ngeen taxaw ci kanam sunu borom kenn ku ne yàlla attewaat leen kenn ku ne dee xalaat loolu mbokk yi sëñ Fall mayeetu sox macha allah mbokk yi dañu xam ne tooñ du dëgg ak ku ci man di nekk koo man di doon bis dana ñëw ñu wàcce la sa immeuble wàcce la ci say lal wàcce la ci suuf nga tëdd ci laa bu doyee di tëdd ci mbàjj mi gën a na bon say mbàjj lan lay lalal nga tëdd ci dorob boo xam ne da ngay yuut say yuut di gellee ko te doo ci man dara say baq te di génn doo ci man dara saa su ne ngay waccoo ak galeeru ku la xaman xam na tey bu jàkkaaroo yoo xam ne tey da ngay dee bu boobaa nag mbokk yi boo nekkutoon ci dëgg nekkoo ci lu baax nekkoo ci njub na la leer fa nga jëm xam nga ko ak koo mën a doon laa wax nag mbokk yi lu ko fi jar lu ko fi jar mbokk yi nañu teg nit ñi ci dëgg nañu leen wan dëgg nañu leen wan yàlla nañu leen wan yonent bi nañu leen wan seexul xadim bu ñu bëggee mucc laa wax nag nañu leen wan yàlla nañu leen wan yonent bi nañu leen wan seex naa xadim si Ahmadu Bamba Xaadimu suñu yaakaar bu ñu bëggee mucc laa wax nag yonent salaam na waxan na ni ñett yi ñuy ñoo xam ne yàlla delloo seen ñaan mbokk yi am na ñett ñoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam yàlla delloo seen ñaan ñett ñoo yëpp ku ñu tooñ bokk nga ca koo xam ne dañ laa tooñ ci tappale dong lañ la tëje ci tappale dong lañ nangoo sa alal ci tappale dong lañ la ware ci tappale dong lañ tas sa jabar ci tappale dong lañ nangam ak nangam ak nangam képp ku ko def na la leer ni ëllëg lu mu la ñaara day dal su am na fu yonent waxat sax ni walaw kaafiran doonte bi yéefar la walaw musrikan doonte kuy bokkale yàlla sax bu la ñaaree day dal bokk yi tooñ jigul kenn sëñ Fallou bul yaakaar ni tooñ da nga naan man jullit bi rek moo ko tooñee déedéet même tubaab bi moo ko tooñee bu la ñaanee yàlla mu dal la tubaab bi fu mu mën a dëkk bu boo ko tooñee bu la ñaanee yàlla boo tooñee chrétien bu la ñaanee yàlla mu dal boo jëlee juif bi bu la ñaanee yàlla mu dal la yawut na nasara ñëpp kooj tooñ bu la ñaanee yàlla da lay dal yonentu bee ko wax léegi nag gars yi nekk fi ci ay tooñ ak tappaleeg nangu alali jàmbur ak nangu teeree jàmbur ak nangu jabari jàmbur ak nangam ak nangam ak nag ci lan teguñ ko fenn lu maa lépp doole maa lépp alal maa lépp nangam nangam pourquoi ñëpp koo sa la baro seen loxo ñi ci war a war ci wax te kenn waxu ci loolu dina jëmale am réew kanam réew mu ni tooñ réew moom day dellu gannaaw turut jëm kanam moo tax ma ne Sénégal la feeg bayuñ tooñ gi bayuñ fen ji Sénégal day gën a arewaa turut jëm kanam day gën a naqari day gën a métti yëf day gën a yokk coono bi gën a bari tës tës yi gën a bari nag nit ñi du noppal li daaw guddee bëccëg te ñu am dara man maa la ko wax man Oustaz na Ndiaye nañu delloowaat nit ñi ci yàlla ñu jàng seen diine ba xam ko lii lépp nag mënta jaa mënta jàll mën koo xam loolu dañoo dellu ci li Sëñ Tuubaa waxan Sëñ Tuubaa doon jàngal leen ndaw ñi su ngeen bëggee am résultat ëllëg jàngale ndaw ña waaye wa man nahaakum ani taallum fa huwa xalifatul ayni mujrimi képp ku la naa bul jàng jàng amul soloog naang naangam yii nii sëñ Tuubaa nee na daw ko moo représente iblis si kaw suuf allahu akbar wa man nahaakum ani taallumi fa huwa xalifatul ayni mujrimi képp ku la naa bul jàng jàng amul solo nangam ak nangam jëf rek am solo yëg yi sëñ Tuubaa nee na nga xam ne kookee moo représente iblis si kaw suuf waaw iblis daa yàq moo ko yàq la mu la lu indi sa yàq ci kaw suuf rek kookaa ko yàq ndax xamul dara xamul fu muy taxaw xamul fu muy teg tànkam nangam nangam te itam yoonu sala sam noonu da ngay nekk borom xam-xam wala nga bëgg borom xam-xam yi wala ngay liggéey borom xam bu nekk ñeenteel ba muy bañ ñi nga xam ne ñoom la yàlla may xam-xam moo ko defee da ngay alko lii mooy lan yii ñu gis kenn xamatu ko mbokk yi kenn xamatu ko kenn kenn xamatu ko yonent bi ne ñett ñooñu nga xam ne kenn du delloo seen ñaan bokk na ci ilimaan jumaano imaam ju maandu mooy képp ku jiite aw nit te nga maandu ca jiite ga allahu akbar loola képp ku ñu woowee xalifa général te nga bokk ndax da ngaa jiite ay nit xalifa général la bu ni bu ni wax mooy ku jiite rek lenn yaa xam ne yaa ji sa njabootu baay xalifa nga te seen général seen général yéen seen famille xam nga si ay maam ki jiite njabootu diw ki jiite ay xalifa lay doon képp koo xam ne jiitu nga ci kenn am mbooloo mu mën di doon nga jiite leen te maandu ca bokk nga ci ñi nga xam yàlla delloo seen ñaan ki jiite chef bi nga xam ne moo jiite rajo bi bu maandoo bu ñaanee yàlla de ko nangu du ko delloo ki nga xam ne moo jiite société bi bu ñaanee yàlla du ko nangu fekkee maandu la ki nga xam ne moo jiite askan wi muy président de bu ñaanee fekkee dëggal na te maandu bu ñaanee yàlla ko du ko delloo ki nga xam moo jiite lépp lu mën do ci àdduna la ko jiite rek kañ teg ca bopp rek su dee imaam aadil la rek bu ñaanee suñu borom subhanahu wa taala du ko ma du kan mooy imaam aadil imaam jumaanu mooy ki jiite aw nit te bëgg ñoom ñuy regg moom muy xiif ñoom ñi naan ba màndi moom muy mar ñoom ñuy solu moom muy solu yées ñoom ñu am oto di dem ak ñëw moom mu ñàkk lu mu dawal ñoom ñuy nangam amuñu fu am fu ndëkk moom amul fu ndëkk nga xam ne boo gisee askan na nga askan na nga naa askan wi sax doon ci askan wi moo gën nga doon président wala nga doon nangam ak nangam kooku mooy imaam Ali commando waaye mënoo jiite ay nit gën leen bëgg àdduna gën leen a bëgg lu neex gën leen bëgg ay kër gën bëgg oto gën leen a bëgg jongama kon maanu mënatul am foofu mbokk yi nañ ko wax te yee ko wax te dund sax lay wax maanu mënatul am foofu mbokk yi imaamun aadi boo ko déggee mooy kenn ku nekk rek la nga jiite boo ca maandoo rek bokk nga ci nga xam yàlla du delloo siru ñaam kon kenn ku ne li nga ci bu ko defee réew mi jëm kanam ndax kenn dootul wor bu dee ki jiite oto li mu jiite da cee maandu kenn dootul wor ki jiite emprunté yi li mu jiite dootu dootu ci dootu ci dootu da cee maandu kenn dootul wor ki jiite wàllu média li mu jiite da cee kenn du wor ki jiite ministre yi li mu jiite da cee maandu kenn du wor ki jiite ministre euh, mitaali gi li mu jiite da cee maandu kenn du wor ki jiite mécanicien yi li mu jiite mu maandu ci kenn du wor ki jiite maçon yi li mu jiite mu maandu ci kenn du wor ki jiite nangam ki jiite nangam ki jiite jàngalekat yi li mu jiite mu maandu ci kenn du wor léegi ko defee ki jiite maandu na rek day mujj réew mépp dañuy maandu Omar Ibn Abdul Aziz dafa maandu war a maandu ba mujj na till sax bu gisee am xar du ko jàpp gaynde du jàpp bukki kenn du jàpp dara ndax ak maandu rabi àll yi loolu mujj danoo miinante xaj muus bëggante loolu mooy lan loolu mooy ak maandu bu nu ko sampal ci réew mi rek ñu ñëpp am nañu bëgg mbokk yi yonent bi nee ñetti ñun du delloo seen ñaan nag ku jiite ay nit ca maanu bokk na ca ñu ne ko ak kan yaa rasulallah ak kan ci ñi nga ne kenn du delloo ñaan sallallahu alayhi wa ni bokk na ca koo xam ne daa woor ba mu war dog nee na ku woor ba ngoon jamono yi muy dog mu toog ñaan lu mu ñaan suñu borom def ko may allahu akbar mbokk yi ko ak yaa rasulallah mu ne ak ki nga xam tooñ allahu akbar nekk di tooñ doonte yéefar la doonte ab bokkaalekat la waaye dañu koo tooñ bu ñaane yàlla yàlla koy nangu mbokk yi kon war nañoo xoolaat suñu bopp war nañoo xool fi ñuy teg suñu tànk war nañoo xool ñu ñooy ñan ndax ñu am li mag ñu amoon buñ leen mënta dab itam ñu teg suñu tànk fan ko tegoon ndax yàlla suñ faalu may tus so la sunu borom ndeysaan allahu akbar mbokk yi sunu borom nii alyawma tujzaa kullu nafsin maa kasabat ana ñu dëggaloon ana ñu nekkoon ci dëgg ana ñu deewul tooñ ana nangam ana nangam ñu ni ñu ngi nii muy taxaw leen ne ana tooñkat yi ana wurujkat yi ana naxaatakat yi ana toppalekat yi ana ñi nga ne bi ñu jiite seenu askan nañ leen doon war ak leen nax yaakaar ñoom li ñu nekk ëllëg bis du ñëw ba ma leen ana ñooñu ñu ni ñu ngi nii mu taxaw leen ne allahu akbar la yi laa la illa allah laa la illa allah laa ilaha illa allah akbar mbokk yi mbokk yi su boobaa kenn ku ne da nga bokk ci ñu jub su boobaa kenn ku ne da nga bëgg na bokk ci ñuy dëgg tey dëggal mbokk yi suñu borom ni leen tey tey jii may wax ak yéen nag tujju saa kullu nafsin maa kasabat maanaam du ma jël jëfi kenn ko fayee kenn kenn ku ne la nga jëfa rek laa lay fay laa ilaha illallah bokk i allahu akbar ngay bëgg a wax wala ñu laaj la nga lànk may tontu suñu borom déet attention am na ay cër yu ma la booleeloon cër yooyee nag boo tontul ñoom ñooy tontu mooy lan mooy li ma la waxan cër yi dañuy tontu bakkan di wax li mu def bët di wax li mu gis nopp di wax li mu dégg a di wax li mu lekk ak li mu muucu loxo wax li mu jël tànk wax li mu fi mu dox dem biir wax li mu lekk ginnaaw wax fi mu wéeru ak fi mu tëdd pëy mi wax jigéeni jàmbur yi nga xam sëy na ak ñoom te tëkku leen kenn ku ne sa pëy wax ëllëg ah, aawaw kenn ku ne di la wax ñëpp koy dégg sunu borom waaw ñi baax nañ féete nii ñi bon nañ féete nii kuñ wax loo waxul say cëre wax bu ko defee ñoom dañuy mujj mer naa cëri yéen da ngeen lu leen dal lu tax ngeen di wax li ma saytu balay naa lan moo tax ngeen di seere lu waral lii yow bakkan lu tax li nga fóonan yow gémmañ lu tax ngay wax li nga lekkoon wala li nga muucoon li nga nangam yow nopp lu tax ngay wax li nga déggoon bat bët lu tax ngay wax li nga gisan ñu ne ah tey nag fii moom benn bu rafi am muy subhaanahu wa taala jalla jalla sa kabaaru du kareen te ku mu wax loo nga wax an taxanaa laaw la si an taxa ku say yàlla mi leen wax loo yéen ñëpp moo ñu wax loo sëñ ñoo bañ a wax allahu akbar mbokk yi sunu ni yéen léegi kon ma ngi kenn ku ci nekk li nga jëfal rek laa la fay maam ba kenn porte plainte déedéet mbokk foofu amul avocat de kenn ku ne yaanu sa bopp xam nga Sénégal toox du na woo dugg mën ngaa wutu avocat boo amee xaalis ñu layal layalay ba ba mel laa tëj ak koo mën a kenn ku ne yaa des avocat bopp ci avocat boo xam doo wax li neex nit ki mais li ngay jëf lay wax moom allahu akbar boo naree wax lu dëgg cër bi weddi ni déedéet nii la demoon mbokk yi loolu buñ ko mënta xool buñ ko ta xalaat ay wo nañ ci nekk rek kenn ku nekk sa pax yëf yi moom daanaka juru son kenn ku nekk sa pax mosu leen a kenn ku fi dee sa baay ñoo ni daay bokk yow pax mi wala sa sëriñ ñoo ni daay bokk yow pax mi wala sa ndijaay ñoo ni daay bokk yow pax mi wala sa mag wala sa yaay wala sa kenn ku ñoo ni daay bokk mi ka la gën a bëgg moo dàq sool ka la gën a bëgg ci àddina mooy njëkk a wax ni ana néew bi na génn doo doo tudd nit am néew nañ lay wooyee ana mu man ci biir ñu ne waa muy na génn nañ ko yóbbu margo ba allahu akbar na ko yóbbu margo ba bu gudd lu mu guddi gudd doo fanaan ci kër ga bu dee bëccëg lu mu naañ naañ lu mu tàng tàng doo kër ga doo fekk añ ba génn rek yóbbu boo bëggan galaas den la galaase soo bañeen galaas den la galaase soo ragalee sedd den soo bëgg loo mën di bëgg ak loo mën a ragal lu tee den la galaas seen frigo yooyu kenn ci dara galaas dara ba nga sedd guy ñu def suul la wëlbatikuwaat mbokk yi ku nu xalaat defal loo neex mais ñun ñëpp cay jaar bis bu yàlla sekk ngeen gu nga am néew ñëw toogaa ci kër gi xam ngeen ni ñëpp ay dee gisaguleen fi kenn ko robaaleeg baayam ak maam ko sëriñ wala kenn ak kenn kenn ku ne sa jëfa lay nga nekk kenn ku ne sa jëf lay fekk fa nga nekk mbokk yi kon nañu bàyyi wax xel suñu borom te bàyyi tooñ nañu bàyyi tooñ mbokk yi suñu borom dañu ne maa araamal tooñ ci sama bopp waaye araamal ko ci jaam ñi daal di bu leen tooñ allahu akbar mbokk yi bule leen di tooñ da koo bañ ndax nee na su boobaa ba ma taxawal nit ñi fee ni leen nag kenn ku nekk li nga jëfal rek la lay fay al yawma tujzaa kullu nafsin maa kasabat waaye nag la zulma al yawma tey tooñ amut tooñ fii rek la am sëñ Fallou àddina bii li di tooñantee ka dama ko ñëw tooñante fii la am mais ëllëg mel xayaam tooñ amu fa waaye li nga tooñal fii rek ëllëg la ñu koy fay suñu borom leen kaay leen ana ñu daa tooñ ñu daa ko muñ ñu ni ñu ngi ñu ni kaay leen tey tooñ amut te kenn ku nekk li nga jëfal laa lay fay wala tasiru waasiratun wizra uxraa du ma jël bàkkaaru kenn ken ko yan kenn kenn koo la nga bàkkaaroo rek laa lay yan waaw waaw mënooy faraan ci jabari jàmbur di njaaloo guddeeg ñuy jël ku yoonam niwul ci jigéen di ko jël naa ko yaa yaa fanaanoo jabar jam déedéet yow mi doon njaaloo lay teg bàkkaarum njaaloo ba ëllëg yow mi doon sàcc lay teg bàkkaaru sàcc ba kenn du ko yen sa baay kenn du ko yen sa maam kenn du ko yen sa sëriñ tam waaw moo tax lu waaye di jëf na leer kenn ku ne bàkkaar boo defee yow la koy def ku yaakaar da jël la rek boot la yóbbu àjjana nekk ci loo neex ba ëllëg amul ñaa intervention daa bokk teg fii ñu nekk sëñ bi nga xam ne boo soxlaa diw mën ngaa di xaaral ma dem ci diw ndax bu waxee duñu bañ maa tëj wala dooy amul foofu de kenn ku nekk yaak sa borom di ngeen taxaw sunu borom ni su boobaa su boobaa nag inna allaha sari'ul xisaab ana gaa yi ñu ni ñu ngi nii li may def dama ko yeexe muy tooñkat yi yàlla ne du ma leen yeexe yàlla day mere tooñkat yi ba du yeexe seen biir ku ne yàlla mën naa négocier ñoom ma def tooñkat yi fa saasa rek lay gaaw waaw sari'ul séerum rek la da koy da koy gaawal xam nga léeg-léeg nga jël fii ab dossier yóbbu ko tribunal dañuy gaaw maam dossier bi da leen di ñor dañ ciy taxaw sëñ Fall loolu noonu mu amee fii ceeb na ëllëg la raw léeg-léeg nga yóbbu ab dossier boo xam ne mën nañoo téye waa ji def ko mandat de pour lu mat nangami at xëy xëy tijji ko di ko defoo dara mooy dossier yu yeexe waaye dossier tooñkat yi yàlla ci yàqante na buy ji buy tegu ci loxo malaaka rek ñu koy teg ci loxo sunu borom rek mu daal di gaaw li atelier na gaaw allahu akbar du dossier buy taxawal ndax daa ñor yàlla ndax yàlla daa bañ tooñ sëñ Fallou kon xam naa mën nga noo may son tey ubbiwaale leen bi ci 88 628 1905 88 628 1905 88 628 1905 incha allah seen émission xew-xew ak seen mbokk seen xarit oustaz Média Touba Firdawsi minal xaqi ilal xaqi xatta ataan yaqin tey ñu waxtaanee ci tooñ asalaamaaleykum wa rahmatulah. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu siyaar ba. waaw sëñ Mbaye Niang. waaw. saa man la soxna Awa Ndaw daar tamsi. ah soxna Awa ñu ngi kay. ñu ngi siyaare bu baax. wallaahi na waa kër gi. ñu ngi fi. alhamdulilah tawakkal. ñu ngi rafetlu émission bu baax. ndeysaan wallaahi ndeysaan. ah ji de xam ne fu mu ne war ngaa tiit. wallaahi wallaahi wallaahi. nit ñi de daal mel ni fu ne nii daal dañoo fàtte yàlla. wallaahi ak a wér ak doy na waar trop trop trop ak a doy na waar ndax fu mu ne nii kenn ku ne daa mel ni daal dañoo fàtte yàlla seetatuñ seen digganteeg suñu borom. déedéet déedéet déedéet déedéet. waaye nag yal nañu yàlla jubal. amiin mm-hmm. amiin teg ñu ci yoonu siraatal mustaqiim. amiin amiin amiin amiin bëgg émission bi la leen ndeysaan ñu ngi koy siyaar baax a baax moom son aw ndaw moom di ko ñaan yàlla subhanahu wa sàmm ko aar ko taxaw ko ku bëgg lu baax la xam naa ne di ko siyaar siyaar waa daaru tansil gépp nag macha allah fa tabarakallah lépp loo ci def daal ci sa alal yàlla na la yàlla defal la ko sa misaani xasanaat rek dugg bi yëpp daal yàlla na ko yàlla def sa misaani xasanaat moom son aw ndaw moom 88 628 1905 88 628 1905 wala 88 628 81 08 88 628 81 08 wala 88 628 17 05 seen émission xew-xewu jamono ak seen mbokk seen xarit Oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdaws min al xaqi ila al xaqi xatta atan yaqin sëñ Fall yëkkatan tuuti son si Amadou Fall yëkkatan tuuti son salaamaaleykum aleykum salaam ñu ngi siyaar baax alhamdulilah yàlla na yàlla nangu ñu rafet li émission bi fu mu toll nii. alhamdulilah. maa ngi lay bàyyi xel baax Mor Diagne Touba. sëñ Mor Diagne Touba. ay waaw. ndeysaan jërëjëf. waaw. sëñ Mor si ànd baax. maa ngi bàyyi émission bi xel bu baax. ndeysaan ndeysaan. koy teelu fu mu li ñuy woote nag bëri waaye ñu koy bàyyi xel bu baax de. ndeysaan ndeysaan. addu yi de dafa nekk te dëggu la. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. dëggu la lool de. alhamdulilah ndax yàlla. ñoom damaa foog ne ñoo fàtte yàlla ndax seen xel daa ñëw ci yàlla laa foog. Ah, wallaay ak a wér delluwaat ci yàlla ak a wér ragal yàlla wallaay ndeysaan na ci lu baax mm-hmm. ndax àddina bi loo fi xas solu daal am solo allahu akbar lu baax dong nga ci am solo ndeysaan ak ak a wér loo fi yàgg yàgg da ngay dem wacci ko feneen allahu akbar am na sama benn baay bu wax naan ab saar nit ab saaram lu rafet rafet li dee bàyyi ko waaw ak a a wér la daan wax bi ndeysaan moo tax dina bi jërë jëru fi dara lu baax rek a ci am solo allahu akbar bu fi ne daal dee ci ni ci baax. Mm-hmm. ak am allah akbar ndax lii leen dara. wallaay ndeysaan. xëccoo yi werante yi yi yëpp dara. Mm-hmm. dañ ko fi bàyyi doon. wallaay dañ ko fi bàyyi wallaay ndeysaan. ndeysaan allah akbar allah akbar jërëjëf sëriñ Mor Diagne fële ci Touba Xayra ñu koy siyaare siyaar waa Touba Xayra gépp kàddu yi am na solo tegtale na dafa mel ne am na ko ne ci déglu salaamaaleykum dafa mel ne mbokk moomu génn na ñu jaajëfal bu baax a baax sëñ Mor Jaañ ci kàddu yu am solo yi waa ji macha allah ndeysaan loolu ko mag moom wax day lu am solo la ci àddina ak ñàkk ngor ak ñàkk ngor salaamaaleykum allo waaw <laughs> min alxaq ila alxaq na nga def ah, eh, Sidi Sidi <laughs> la ñu ngi lay nuyu waa Sam mooy nuyoo ndeysaan ñu ngi siyaar borom Sam waa Sam day nuyoo ñu ngi lay nuyu bu baax a baax wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan Sidi nga wàccee ci ci penc mi lu amati solo macha allah walaay ndeysaan ah jërëjëf yal na la yàlla fay. amiin amiin di fay yool képp kuy teewlu sa émission bi macha allah. aywaay amiin dañ bokk amiin. ah ngay waxtaanee lu daw yaram te bëri ci réew mi lool. walaay ndeysaan walaay ndeysaan te doy waar lool mooy asul mu muy tooñ. allah akbar. bu wax ne asul mu zulumaatu yowmal xiyaam. walaay tooñ day. waaw day jur ay lëndëm lëndëm ëllëg yowmal xiyaam. allah akbar. te yowmal moom lépp loo xam ne dafay jur lëndëm lëndëm. Hmm. lu mat a moytu la. Ah, ak la la mel ni mag ma waxoon rek. mu ne lépp loo xam ne nit ki mën na koo moy ci muñ ci safara. ci ci mbugal. bu la neexee defal lu la neex ci àdduna. wallaay laasim safara benn minute rek nit mënu ko koo muñ ci ak xam nga li tax tooñ doy waar ëllëg yow mel xiyam. Mm. soo fa ñëwee xam nga foofa amul mm. dërëm mm. amul dara looy fayantoo lu dul yow sa jëf ji baax ji nga nekkoon ci àdduna ji ngar-ngari. moom la jël. di ko fayee di ko fayee gars yi ndeysaan kooku mooy ku ñu siisir dëgg nga xam ne ah. yow li nga amoon ci lu baax lépp la ñuy jël wallaay nga xam ne yow boo tooñoon kii lekk alalam kale nga jëw ko kee nga def nii kale nga def ne ëllëg yow man xiyam mm. foofa amul xaalis amul kër amul nangam amul nangam sa jëf yu baax yi nga doon def ah. la borom bi di jël di fay ñee di jël di fay nee di jël di fay nee di jël di fay nee ba mu jeex ah. boo demoon tey ba amatoo loo fayee ñu wëlbatiku di jël lu bonu saydu di la mm. ko joxaat yow da ngay mujjee mm-hmm. maanaam nga xam ne keneen ko xam ne amoon nga ko ak te amatoo lu baax loo ko lu bonam la ñuy jël yow yan la ko yàllaa xereñ ah, bu ko defee nag da ngay mujj diis gan nag ci ay bàkkaar loolu nag jaam bi képp koo xam ne xam nga ko yaa ngi ci àdduna di dund mm. góorgóorlul dund àdduna bi dafa gàtt saa boo xëyee dégg ñu naan la kat démb dong la fi jaaroon nangam nangam ngay xalaat sañ ñoo xam ne 2002 wala 2012 rek yaa ngi àndoon ak ñoom tey faatu nañ ñu nekk ci biir ba ñu fàtte leen te yàlla wax ne ilal abraara la fi nañ wa inal fujaara la fi jëm ku baax mm. aljana nga jëm ku bon safara nga jëm. wax ju gàtt loolu rek tënk na àdduna. tënk na lépp waaw ku baax. waaw aljana nga jëm waaye ku bon safara rek ku dëng. waaw tooñante gi ci wàllu tuumaal nit. ëpp ko doole tëj ko ci biir kaso. yàq deru nit. lekk alalu nit tooñante gi ñuy defante. Mm. te yàlla dem na ba ci xar mu am béjjën ak mu amut béjjën sax. waaw ak xisaas fayantoo ga da cay am. kon yow jaam bi war ngaa ah. bàyyi xel loolu. Ah, ah, waaw te xamal ne irtaxalatil dunya muqbilatan wartaxalati axiratu muqbilatan xaw ma ni nga ko waxee noonu comme dama ah, xaw a ah, fàtte ah, waaye comme ni ñuy naan adduna saa boo moom takk nay bagaasam di la wan gannaaw alaxira saa bu xëyee moom it takk nay bagaasam di la gën a jege al yow ma xamalun bilaa jasa waxadan jasa bilaa xamal tey bés bii ñu nekk muy adduna mm-hmm. bésub liggéey la mm-hmm. waaye du bésub pay ëllëg yowmal xiyaam nag du bésub liggéey moom bésub pay kese la kon nag na nga góorgóorlu <laughs> fexe jëf loo xam ne ëllëg yowmal xiyaam daañu la fay xam nga alyawma a ngay waxtaanee léegi moom a gën a kii a naqtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ah. bima kaanu yaksibun ah. fa nga xamee ni yàlla day ne rab mm. lépp cër yëpp tëj gémmiñ gi mm. tànk bi di waxal boppam maa ah. doxoon dem fii maa jógoon guddi dem sàcc loxo bi ne maa jël awra bi ne maa def lii maa def laa biir bi ne maa lekkoon lii lam ñu ne maa tuddoon nga xam ne bu boobaa moom cër yi moom ñooy wax mm-hmm. ah jaamu bi yàlla bu ne war na ko bàyyi tamit nañu góorgóorluwaat delloo xel suñu borom yàlla li mat a wax lépp wax na ko wallaay wax na ko yonente bi ñëw gën koo leeral suñ tubaa ñëw gën ñoo teg ci ak njub ñu lànk rek jaar ci naan fay fay gi topp adduna gi rek ci internet yeeg yu neex rek nañu góorgóorluwaat delluwaat suñu bopp yow nag xam naa ne moom ku lay déglu <laughs> moom boo xawoon a dëngit léegi nga baax yal <laughs> na la yàlla a mal xiyam lañ gën a bëgg mm. moom boo leen ko laajee mooy dellusiwaat àdduna doon tas minute la ngir def lu baax pour buñ delloo mën a jëriñu ndax même buñ nekkoon ci lu neex foofu lu neex du fa doy kon ah. nga war a ah, moo tax ma naan suñu réew mi tey lii ma fi gis tey jar na toog fii sax di nas ay puso tey ñaw ak kafas moo gën nga roy ba yàqu far góor ak jigéen tey ñëpp liñ gën a bañ ku leen ne seer waa joo ko wax mu sansi air sansi ndoxin soppi waxam kalaamahum booy naka waar seeni nuyoo sawaak alors ngir toppandoo lii door na waar ci ab julit buy wut ngërëm wallaay noonu laa ko toppee bu bëree bëri waaye daal réew mi daal ah, ah. fi mu ne lii fi ne dafa doy a góorgóorlu toppaat siraatal mustaqim xam ne adduna amul solo di la ñaanal rek yàgg fi tawéer bu baax a baax di ñaanal waa rajo bi yëpp rek. ndeysaan macha allah <laughs> wa sukran jërëjëf jazakallahu xayran macha allah fa tabarakallah ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Seydi Jamil Faye fële ci saam ndeysaan di siyaar mboolem ku yeewoo saam nag kàddu yi teg tegtale na am na solo jotal na macha allah fa tabarakallah leeral na lu bare tam ubbi na lu baree bare tam gën naa yaatal lu baree baree bare tam ci li ñuy wax tooñ ndeysaan macha allah Seydi Jamil Faye suñu xol sedd na suñu xel dal na macha allah fa tabarakallah yàlla la yàlla yokk yow itam yokk sa xam-xam yokk sa wér yokk sa man yaa mboolem ñu ni bàyyi xel auditeurs auditrices yi nga xam ne ñooy bàyyi xel rajo Baol Média FM 88 point rawat na ñuy bàyyi xel ak seen émission bi di émission xew-xew jamono nga xam ne moo nooy faral di wax ni mooy émission ñu bëgg dëgg waaw mooy émission ñu bëgg dëgg dëgg rek ko tax a jóg waaw dëgg rek ko tax a jóg ilaa xiyaam incha incha allah rabbi jërëjëf sëñ Sidi Jamil Faye 88 la 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 88 628 81 08 ngeen ci ànd ak seen mbokk seen xarit Oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdaws min al xaqi ila al xaqi hatta atan yaqin ndeysaan dafa am lu Sidi Jami doon wax lu lu am solo xoola suñ ci waanu koo wax waaye xawal xisaasu xisaasu bayna al xarna wa bayna al jamma li adlin samma allahu akbar nga xam ni maandu sunu borom àgg na ci maandu yàlla àgg na ci ëllëg sëñ Fallou li nga xar mu yàlla bindan mu am ay béjjën ak xar mi nga xam ne dafa nekk njëkk xam nga njëkk mooy xar mu amul béjjën moo lay njëkk waaw wala bëy yàlla bind am ay béjjën ak bëy yi xam ne amul béjjën ñu ne ko wax njëkk mooy ko amul béjjën suñu borom ëllëg mal xiyaam xam nga ñoom moom kenn duy atte waaye ëllëg yàlla nii leen kenn ku ne fay sa moro ci ko mbëkkan ba pare yàlla doog leen def nag ngelaw ñu naaw allahu akbar maanaam fu doon nii xar mi amoon ay béjjën mbëkk mi amul ay béjjën fii ah bu ëllëgee yàlla di leen dekkal jël mi amuloon ay béjjën monteel ko ay béjjën ma fay mbëkk mi amoon ay béjjën mbëkk loolu ci yàlla bëgg a wane bëgg a wane ne lu ngeen def dinaa leen ko fay kon sax loolu mat naa bàyyi xel c'est comme xar wala bëy wala nag bu mbëkk ak moroom ji donc la yàlla ne bu ëllëgee dina allahu akbar mbokk yi allahu akbar salaamaaleykum salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ndeysaan ku baax kooku ab ah, ndongo doo jox tur yi <laughs> Ah, ab dong bu ci daara yaa ñu ngi siyaar baax. am na wax dëgg yàlla ñu ngi koy bàyyi xel. ndeysaan alhamdulilah fooy wootee nag. maa ngi Touba. Touba waaw jërëjëf. naa daal eh, maanaam sax ci lu baax daal. Mm-hmm. maanaam bénéfice bu rëy bénéfice bu rëy rëy. ndeysaan. Uh-huh. Uh-huh. nit ki dafa war foo foo toll rek. maanaam lépp loo xam ne ndigalul suñu borom la. nga di nga di def di maanaam di jéem sax sa kéemtulaay kàttan. ndeysaan ndax yàlla ndeysaan. lépp loo xam ne lu yàlla gërëm la nga mhm, mhm. wallaay ndeysaan. lu mhm. ko borom xam-xam yi waxee maanaam nit ki tamit la mu fay dundee mooy ay jëfam. ay jëfam allahu akbar. Mhm. boo demee ba say jëf jeex da nga tumuraan. wallaay mhm, kon nañ fexee sax ci lu baax. lu baax du ko doy de wallaahi. ak a wér. ku nekk ci ay jaaxal bu boo boo da nga ko gis. wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan. suñu borom naxut kenn nit ñi ñooy nax seen bopp. déedéet wallaay wéru naxul kenn de. allahu akbar suñu borom naxut kenn nit ñi ñooy nax seen bopp. ndeysaan yàlla wax ci alquran lu wér lu leer la. allahu allahu akbar kullu man alayha fanin la ilaha illallah oh. mbokk moom di woote Touba xam naa ni dafa nëbbu turam waaye meneen kilifa la ñu ngi koy siyaar baax a baax a baax a baax a baax wax ju am solo doon wax ci ñetti kullu yooyu mu doon mujjee ndeysaan ak la ko jiitu boroom xam-xam xam naa it kilifa la donte daan nëbbu turam ñu ngi koy siyaar baax a baax di siyaar rek mboole ñu nuy bàyyi xel ci Touba ñëpp rek ñu kenn waaye kaddu yu am solo daal la wax delloo nit ñi ci yàlla rek ay waxam lépp daal mooy nit ñi nañ dellu ci yàlla nañu dellu ci yàlla nañu ragal yàlla nañu gëm yàlla yu baree bari nañ ko yaakaare ak nañ ko fooga demul noonu na mbokk yi xam loolu yu bari nañu ko yaakaare ak nañ ko fooga demul noonu te kii ñu yaakaar muy Seex naan Xadim day dañoo teg ci yoon de nee na jëf naa ngeen gis ma wax ngeen dégg ma bind bàyyi fi waaw wan lay lan mën a am ci kanam Seexul Xadim ëllëg kan moo man yaakaaral Sëñ Tuubaa ëllëg nga naa ko man diggaloo moon wala tërëwoo moon wala nangam amul di koo xam ne jëf na nga gis mu wax nga dégg mu bind bàyyi fi te boo xoolee ay mbindam lépp jaamu jëleen yàlla lay wax ku la ko yombalal moo la nax ku la yombala yoon Serigne Touba yi moo la nax ak ku mën a doon laa la wax nag du yoonu yomb du yoonu nangam yoon la woo xam ni dëgg ju leer naññ lislaam ju leer naññ imaan ju leer naññ ihsaan bu rafet lool moo nekk ci yoon wi képp koo xam nag bëgg ngaa sos sa mbiri bopp man nga ko tudde naneen te bañ ko tudde ak almuridiya déedéet ku bëgg a sa mbiri bopp tudde ko naneen nekk say caaxaan loo neex nga def ko bu la neex xam na ko def koo mën a doon laax nag bu la neex ko def waaye nag bu ko tudde mbiru Sëñ Tuubaa moom salaamaaleykum waaleykum salaam ah waa ju baax waaw ñu baax yàlla na yàlla nangu saa ñu ngi siyaar baax a baax rafetlu waxtaan wi ndeysaan alhamdulilah hmm, xam nga tooñ moom li tax suñu borom diisal ko uh-huh. wala tooñ nga tax suñu borom diisal ko. waaw aha xam nga tooñ da du nekk genn tooñ. su ma la tooñee man. waaw. tooñ naa yàlla ndax damaa def lu ma yàlla tere muy ñaari tooñ. muy ñaari tooñ. tooñ naa yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Mm-hmm. tooñ naa alxuraan tooñ naa lislaam wala li yàlla yëpp tooñ naa leen. allahu akbar. moo tax tooñ du nekk genn tooñ mukk. <laughs> bu ñu gisee juróom-benn tooñ lay doon. ma la man ah tooñ naa la. Ah. loolu sama digg yow la. waaye tooñ na yàlla ndax damaa def lu ma yàlla tere. tooñ naa rasulillahi ndax damaa def ma yonante bi tere te ah. tooñ naa alquran tooñ naa lislaam tooñ naa diine wali yàlla yëpp tooñ na leen. allah akbar allah akbar. loolu su borom wax. la ilaha illallah. boo gisee nit li ko yàqal yëpp ab yonant boo gisee du yàqale mukk. yëpp rek mu yàqal doomu aadama. ko araamal ci yonant. muy kasibatun xiyaanatun kitmaan xaramaha xaaliham dayaanu waaw allah akbar lu wér la ten ak war ak nëbb dëgg nëbb dëgg nag mooy loo xam dëgg nga teg ko sa tànk waaw yett yooyu mu yàq ku yàqule ci adduna yett yooyu moo leen moo tax ab yonent du yàqulu mukk ndax yett yi yàqal doomu aadama suñu borom da ko araamal ci moom kasibatun xiyaanatun kitmaanu xaramaha alayhim dayaanu loolu la suñu bi wax ah ak wér wa dañ ci wëlli yàlla yi am na ci koo xam ne dafa masana dox ci mbedd ba aw daalam dëgg bàq maanaam suuf su tooy lu mel ni am potit mu dem ci miirub jàmbur fëgg ko ca xool dàll bi ndeka taqal ne miir bi mu dugg ci miirub kër gi jébbal jéggalu borom. allah akbar. ko man kat sama dàll bi dafa am lu mu taq ma doon ko fëgg ci sa miir bi yàlla dogal am lu des lu taq ci miir ma bëgg nga jéggal. ndeysaan. Hmm. boo gisee suñu boroom di wax ne misxaala saratin saratu jooju borom xam-xam dañ koy firi firee sangalañ waaye sangalañ am na lu ko gën a tuuti. waaw ngootoot ah, moo gën a tuut sangale. moo gën a tuut fuuf waaw ngootoot di la. waaw ngootoot moo gën a tuuti sangale kay koo xam ne. <laughs> ngootoot am na lu ko far dëgg dëgg dëgg bu ñu koy jàngal dañuy wax ne boo taalee lamp bu leer naññ guddi. Ah. lay wër la ne ca kanam lamp di wëndeel la mel ni sungum. Ah. mel ni poussière loolee mooy farra suñu borom du ko bàyyi mu jàll te lijjantiwu ko. allahu akbar allahu akbar. waaw jërëjëf. laa ilaha illallah allahu akbar. allahu akbar allahu akbar jërëjëf waaju baax mu wax lu am solo lu leer naññ loo xam ni moom itam dey ku ko jàngat damay njëkk ci jàngatub loolu mu wax ci yooyu yonantu yooyu nga xam ne dañu ko war ci yonantu muy kasiba xiyaana kitman suñ tubaa leer ko ne xarama xa dayaan comme noonu ko defee ci way Seexul Xadim daanaka lu bari ko nas mu ndax dafa wax ni téere yu njëkk yi dañoo ñëw rek wesar ba ñu ëpp ci ñii ñi dañoo mujj bari waayu téere yeeg wax ji dañ koo dëdd dañ koo dummóoy war ko ginaaw ne man seexul xadi nag bu ma ñëwee nag ma defal leen ay way pour ngeen gën koo mën a gaaw a dégg gën ko mën a mën a mokkal boo demee ci masal ko jinaan li may wax ni bind ko fa nga xam ni moom sëñ Tuubaa ci ëpp da koy way way yoo xam ni téere ni bindal ci fiq ak tasawuf ak yëpp da ko da ko da ko way nga xam ne moom la waa baax leeral mu yuuyu suñu morom nga xam ne da ko araama ci yonant muy wax lu dëgg ak nëbbu dëgg nga xam ni loolu lépp nag day day làmboo tooñ moo tax mu ne kon ab yonantu sunu borom da ko daal di musal moom ci tooñ yonantu tooñ mukk ci na mukk ci àddina da ciy mucc da ciy mucc mu doog a leeral nag ki li ñu wax sarra nga xam ne boroom xam-xam yi lu la firé ko rek li sëñ loolu mooy mooy wane ni sarra daa tuut sarra la kenn mënta xam xam nga da nga ko lu tolli otom moom la ko mën a firé fur fur gàtt xam nga ñi lu tolli sangaleñ li nga moom wax ne lu toll ni ngootoot xam ne boo xoolee moo gën a moo gën a moo gën a moo gën a uh, tuut lu tuut la moom buy dox sax si da nga yëg doxin wi rek waaye doo ko a gis daanaka da nga yëg doxin wi rek nii waaye daanaka gis ko sax dafa jafe li nga misaal bi mujj andi muy comme làmp bu tàkkee lay leer te lay kii mel ni posé te kii nga xam ni li yàlla bëgg a leer fo mooy nit ki lu mu tooñ nit doonte dama laa romb sama wew yi xaw laa laal ma tooñ la ko ëllëg naa la ko dinaa ko dana la ko wax nga fay ko léegi nag kon xoole ñi ne détourné ay millions millions jàmbur ñi détourné xaalis jàmbur ñi détourné terrain jàmbur ñi détourné oto yi jàmbur ñi détourné nangam yi nangam yi nangam jàmbur ñi nga xam ne tey lijjanti nga sa passeport sa nangam ak nangam boo war a am visa ñu fexe ba dox ba yàq loola ci ay tappaleeki waru yooyu tooñ kon ñooñu fa leen ko jëme ñu sàcc ay alal yoo xam ne kenn ci misaal tey lii cour de compte boo xam fan yi nga xam ne tey ñi sàcc suñu milliards yooyu xam milliards ëllëg dañu leen koy yan ah ndax naa la milliard bu leen ko yan lu leen ko yan yi ndax day day yomb kon lan ko war na jëndee lu toll noonu nu mu di sax nu leen ko yane yooyu nag yooyu tooñ nag mënta am ci réew réew di jëm kanam mënta am ci société société ba di dox mënta am ci société te yàlla du leen teg ay natt force yàlla teg leen ay teg leen ay tiis tiis ak i balaa ak yu kenn xamul ndax lan warkat yi nekk seen biir warukat yi nekk seen biir tappalekat yi nekk seen biir kàcckat yi nekk seen biir ñooñu la yàlla di mere ba mere waale société ba ndax yu mel noonu sunu borom buy mbugal du sepp waale kenn léeg-léeg benn waay wax na ko kara yaakaar na loolu sax ci la aman Moussa bu mu ne yàlla lu tax euh, bu la kenn borom na ko xisa bu la kara bi ko yàlla joxee loo xam ne ci misaal mu téye ko bi melentaan ko wala sangalee bi ñëwee matt ko Moussa tapp ko bu rafara yàlla lu baree baree bari sunu borom ni ko benn dong la matt loolu sëñ Basiru Jeng dama koy faral nit lu baree baree bari ma ko leeral benn dong moo la matt wenn melentaan wenn wenn sang lañ doo nga la maat xoolali nga rey sunu borom buy fay noonu lay def menn ba njaay mën naa tooñ yàlla reyaale fàllu fàlloo mu jëf caata ñëpp yàlla éliminé leen ndax lan mbay njaay doo nga tooñ léegi nag ku xam loolu kon bu boo gisee kuy tooñ da ko war a wax waaye doo gis kuy tooñ nga koosala bara ne sama yoon newu ci si Abdou Ahad Mbacké danaa wax naa tooñ daal li fi yaa ngi koy dégg muccoo ca ku dégg lu xew ci bi da nga koy teel a àddu salaamaaleykum wa rahmatulah salaamaaleykum

mbokk mi dafa mel ni déggante bi neexul ba tey de xam naa ne problème réseau lay doon 88 la 628 19 05 88 628 19 05 wala 88 628 81 08 képp ko bëgg a àddu foofu ngay jaar incha allah rabi dafa mel na ko ci ligne bi. salaamaaleykum. salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw sëñ bi maa ngi jaar. yàlla yàlla na nga ko baaxoo. kii lañ koy wax nee ko jenn rek. jenn jenn kon jenn. jën sang yàlla waaw jën ñu baax kay. bisimilah. ah ñu ngi lay baax jenn. waaw macha allah waxtaan am na solo lool. alhamdulilah alhamdulilah. ñu ngi ngi topp émission bi saa su nekk. ndeysaan alhamdulilah. yàgg nañu kaa teewal leen waaye nag ñàkk ay dong ay dong lan moo tax daanaka. ah ndeysaan alhamdulilah kay gaay baax. léeg-léeg moom léeg-léeg moom day xaw a dëgër moo tax. ndongali kay lay nekkal fii waaye yéen kay ay gaay baax ngeen. yéen kay fa tabaaraka. macha allah li ngay waxtaanee dëggu na lool macha allah. ndeysaan alhamdulilah ndax yàlla. am nga léegi nit ñi nit ñi dañuy wax aaya yoo xam si ni maanaam duñ ko dund. Mm, mm, mm. dañ naan kullu nafsin zaa'iqatul mawt ñoom allo. waaw maa ngi dégg yow rek laay dégg maa Sall sëñ Diène. <laughs> dañ naan kullu waaye gëmuñ ko. gëmuñ ko ah ah. gëmuñ ko de wallaay gëmuñ ko. wallaay ndeysaan allahu akbar. nit ñi maanaam gëm nañ waaye la ci ginnaaw dee lañ gëmul. loolu lañ gëmut waaw loolu moom gëmuñ ko moom. la ci ginnaaw dee gëmul. wallaay ko yàlla xam na ko. bis bi nekk suñu borom ndeysaan dañoo dañoo dañoo ragalul yàlla rek wallaay ndeysaan waaye yàlla nañu suñu borom subhaanahu wa taala gindi allah amin amin amin ban ban dëgg jëw yoon eh, waaye amin waaye amin nga xam ne bàmmeel moom mm-hmm. euh, euh, la la la la la la la la la ak jub dong ak jub dong mën a jariñ wallaay ndeysaan aha aha ni ko ni ko suñ da waxee daa giñ kallaahi la sa yan fon sax su allahu akbar indal xuloo jariñ nit ci biir bàmmeel ak njub allahu akbar la ilaha jariñ nit ci biir bàmmeel lu ak njub allahu akbar ñun nag léegi dañoo jubatul déedéet déedéet déedéet maa ngi lu baax na ah sëñ Diène war ngaa de <laughs> macha allah sëñ Diène kàddu gi am na solo wax ji wax ji am na solo ndeysaan euh, macha allah fa tabarakallah moom daal li ñuy li ñuy li ñu gën a ëpp solo mooy bu ñu duggee rek kenn ku ne àddu bi day am solo te te fa ngay wax de kawe lool te li ma wóote woon ay borom xam-xam ñooy dugg ñuy dugg ñii ay borom xam-xam lañ o ah, ay borom xam-xam la macha allah fa tabarakallah euh, macha allah fa ñenn ñi bu ñu doonu ay borom xam dañu bëgg xam-xam xam nga ki doon borom xam ak ki bëgg ñoo rek ñoo ñoo yem atte bëgg xam-xam ak ki doon borom xam ñoo yem benn atte ndax kun aaliman aw mutaalliman aw muhibban wala takun rabiata fatuhlik yaakaar naa ma juumu noonu la waaw nga xam ne moom nekkal borom xam-xam wala kuy sàq xam-xam wala nga bëgg leen waaye bu nekk ñeenteel ba boo ko defee da ngay al ko ñeenteel ba rek kenn ko da xam na ko mooy bañ ñuy wax dëgg ak borom xam-xam yeeg ñoom nga bañ leen kon 88 628 1905 88 628 1905 wala 88 628 81 08 seen émission xew-xew jamono ak seen mbokk seen xarit oustaz Média Touba xatta ataani yaqin incha allah rabbi ñu koy amee bu ko defee njël ko ci ligne bi salaamaaleykum. waaw sëñ Ndiaye na ngeen def. waaw waaj baax ñu ngi siyaar baax kay. waaw ah, maa ngi jël si waat. wallaay ndeysaan. wax ci détournement yi ngay wax rek. ma ne détournement yooyu ngay wax. ni la dégg alali askan wala alali kenn rek. waaw. xam man fi mu toll moo lekkee sa sa benn franc. xam nga benn franc juróomi franc juróomi fifteen mooy benn dërëm. Mm, mm. bu ñu nee cinq franc rek maanaam juróomi fifteen mooy benn dërëm ah, ah, ah. léegi sa benn franc mo ma lekkee sa benn fifteen maanaam juróomi téeméeri julli moom la ko yàlla remplacé allahu akbar to yaa bay juróomi téeméeri julli mm-hmm. léegi juróomi téeméeri julli nag boo ko diffusé mooy weer wi téeméeri julli maanaam ñetti weer yoo xam ne boo jullee ci versement bi ci man lañ koy andi allahu akbar <laughs> waaw benn franc rek benn franc rek yonente bi dafa xam ne boo ko lekkal nga lekkal ko maanaam benn koppar rek ah nga lekkal ko juróomi téeméeri julli moo koy war a remplacer la ilaha illallah juróomi na boo ko diffusé mooy weer wu ne maanaam fanweeri fanweeri julli yu juróom allah akbar yoo xam ne lu julli rek versement bi dañ koy dañ koy daal def ci compte ki nga xam ne moom nga lekk benn franc benn franc laa wax de benn franc rek waaw benn franc benn franc rek waaw mooy cinq franc mooy benn dërëm mooy benn dërëm ah, ah. waaw ah, ah, ah, cinq franc mooy benn dërëm mooy benn dërëm ah léegi nag kon boo lekkee cinq franc loolu ñaata at lay doon ñaata at lay doon yoo xam ne loo julli rek yool ba ñu wersa ko benn franc bi mooy mooy waaw benn franc mooy ñaata julli waaw cinq franc dama ne waaw cinq franc waaw juróomi fifteen mooy mooy benn dërëm waaw waaw benn dërëm xam nga suma ma lekkee sa benn dërëm rek naa sa cinq francs juróomi fifteen lekk naa ko ah, ci yow juróomi fifteen nga lekk waaw ah, te benn fifteen bu ne juróomi téeméeri julli moo koy remplacé juróomi téeméeri julli waaw loolu laa bëgg na xam juróomi téeméeri julli <laughs> waaw ah, nga diffuser cinquante périodes ko xool maanaam diffuser ko par trente eh, daal di xam ñaata eh, mois lay doon kenn xam ko loolu boo xoolee ñetti weer ak fukki fan yoo loo julli rek dañ koy def sama compte allah akbar waaw te mën naa am sax ba nga koy lekk yi du faj sa aajo mu jural la feebar déedéet déedéet déedéet waaw jërëjëf. Eh, allah <laughs> jërëjëf eh, waa ju baax ndeysaan moom fa tabaarkalla xam-xam bi kawe na te fa tabaarkalla macha allah fa tabaarkalla xam-xam bi kawe na itte na te it ku maîtriser li mu wax la. di nga benn franc franc sax fu mu toll nii ko tey ñu bari ko ndax fu mu toll nii tey 15 am na ñoo xam tey bu doon ko woon duñ ko xam ndax daanaka doxatul léegi nag fu lool boo ci wàññee benn franc ba mi 5. ngay doog am benn dërëm benn dërëm léegi nag benn franc boobu rek la wax ni boo ko jëlalee nit maam juróomi téeméeri julli ci misaal moom la war a def pour doog koo fayee ki nga xam ni moom la jël benn franc benn franc loolu la tey boo boo boo boo ko xoolee kon ku la jëlee ñaari franc ku la jëlee ñetti franc ku la jëlee ñeenti franc ba ci juróomi franc nga xam ne ab dërëm lay tolloogul benn dërëm kon nit ki boo ko jëlee dërëm rek kon ñaata julli nga war a fay suñu borom subhanahu wa taala pour doo ko a ñaata julli nga war a julli doo ko a fay nit ki kon benn dërëm laax nag waxuma laa ngay détourné nag ay junni détourné ay téeméeri junni bay ay million ba ay milliards kon yow ëllëg est-ce que war ngaa boole sa xel ci dem àjjana ko bu ko xalaat te yi ay milliards lañ di tourné mu naa li tudd morom ja koo wax ni diw jël na waaye diw jël na diw naa waaye jël doon maa ngi moom ñoo jëloon ñoo bokk fournitures yi bokk nangam nangam askan wi toog di xool te néewuñu ay millions ay milliards lay tudd ay milliards lay tudd bokk yi ñëpp koos la ba loxo kenn waxut te sunu alal rek la ñun ñëpp ñoo ko bokk kenn moomu ko bàyyi kenn du alal li ma sàmm du alal li ma demba alal li askan wi la damay faral di wax xoola xataar xataar gi biir organiser seen pétrole bi ñëpp am ñëpp am réew moo xam ne développé façon dépense boo xam da ngay tudd yàlla seen hôtel yi liste gi mu liste seen stade yi seen barabu jaamukaay yàlla yi seen station yi seen nangam ak nangam wax nag fi benn émission nii laay ak ni ñu dundee sunna nga xam ne mbooleem seen seen seen dund yooyu ak seen station yeeg seen rompa yeeg yëpp dañ faa bind ahadis yoonu salaasa yi nga xam ne day gàtt nekk muttafaqun alayhi nga xam ni boo duggee ci dëkk bi rek nga xam ne dëkkub jullit dëkkub jullit a nga xam ne wax naa ni mat la foo sa ni war na noo fexe ba fexe ba booy dugg Touba mbedd moo dugg station yeeg barab yi liggéeyukaay yeeg fépp foo xam daal foo xam ne place publique la foo xam ne ñaa ngi jaar di gisa rek war na faa bind lenn ci bayit Sëñ Tuubaa yi nga xam ne masaaliku kii la na mu tëji euh, mat kenn ku ne kuy dugg Touba xam ne mooy orma loo wax naa ko fi benn émission ni ne loolu moom war nañ ko royee ci xataar ndax al hikma daaratul mu'min maa ab jullit moom lu baax fu ko gisee ko a jël te ñoom noonu na def dañoo jël xadis yoo sallallahu alayhi wasallam xadisu gàtt yi lañ jël def ko ci mbedd yi def ko ci station yi def ko ci nanga def ko ci place publique yëpp def ko fa nga xam ne tey boo dugg la foo million boo dugg boo duggee ci restaurant dañ ci wàllu restaurant lay euh, loo xam ci wàllu garage lay wax boo duggee ci nangam bitik ba dañ def fi bind xadis boo xam ci wàllu njaay ak jënd lay wax nga xam ne loolu dañ ko def ci dëkk ba yëpp nga xam ne boo dugg boo xoolee seen projet yi ak tableau yi ak yooyu day mujj yow donte sax yow doo jullit sax lii dina la marqué moo tax coupe du monde bi ñu ko déclaré rek ci Qatar une minute baa fa saasa rek lu ma juróom-benn téeméeri jullit daal di daal di juróom-ñetti téeméeri jullit daal di ñoo xam ne nekkuñu ay jullit daal dugg ci lislaam kon loolu nit ki day am nu muy nu muy doxale àddinaam day am nooy doxale ba tax lislaam mën a yaatu àddina mën a gën a dox te lépp nag ànd ak lislaam ju leer nañ comme ni ko waaju baay wax waaju baax waxee léegi mais nag bu fekkee réew da nga yaakaar ne koo nax la naxa ko fu dul gaa yi yaakaar nañ bu la naxee pare nañ ci gisuma diw gisuma déedéet bul xool ki lay gis déedéet xoola ñaari malaaka yi ne ci yow maa yalfisu min qawlin illa ladayhi atidun raqib allahu akbar amul benn benn kàllaama benn benn kàllaama buy wadd lenn luy génne sa gémmañ nga di ko wax wala nga di ko jëf loolu am na ñaari malaayka yu nekk sa mbagg mii ku ne wax atiid ak ku ne wax raqib kii di lu baax la kii di bind lu bon mais xoolal loolu ki nga nax bu yaakaar kii gisu ko boo gisul malaaka mi gis na ko waxuma malaaka waaye malaaka malaaka al malaakul xabsa nga xam malaaka yi nga xam ñoom ñoom ñoo lay watt dong ñaata milliards yi malaaka la te ñoom ña ngi si jëmm di la gis xanaa boo rusul kii itam nga rus malaaka yi wala nga rus sunu borom subhanahu wa taala mais koo mën a nax koo mën a wuruj wuruj koo mën a dóor dóor yaakaar lii nga def dina la jëkk wallaahi du la jëkk ak koo mën a doon laax la 88 628 17 05 88 628 17 05 wala 88 628 81 08 88 621 81 08 seen émission xeexoo jamono ak seen bokk seen Oustaz Média Touba Firdaws minal haqqi ilal haqqi hatta atal yaqin maytul sos FM 88 point seen émission xew-xewu jamono ak seen mbokk seen Oustaz Mbaye Ndiaye Touba Firdawsi minal xaqi ilal xaqi xataa atal yaqin mbokk yi tey jii ñu waxtaane ak zulm muy li ñu wax tooñ te muy lu bari ci réew mi di lu bari ci dëkk bi am réew nag mbokk yi bu ñu demee ba réew ma toll foofa mais nañu yee nit ñi nañu yee nit ñi dañu wax lii dëgg salaamaaleykum salaamaaleykum. waaw. ñu ngi siyaar ba. ça va allo. waaw ku baax ma. waaw salaamaaleykum. waaw ça. maa ngi jégalu de sëñ bi. waaw. naa def. sant sëñ Tuubaa baax kay. yaa ngi ci jàmm. ñu ngi jàmm baax. damaa déglu waxtaan wi neex rek sama xol bépp nag dafa sori nag sëñ bi. walaay ndeysaan walaay ndeysaan. waaw maa ngi di ñaan rek fan wu gudd ak wér-gu-yaram mbak sëñ Sall. alhamdulilah noo tudd ak fooy wootee. sama xol dafa sedd dafa sedd. noo tudd ak fooy wootee. man Oumou Seck yoon Oumou Seck Mbusoobe Touba Mbusoobe. Oumou Seck Touba Mbusoobe. Touba Mbusoobe waaw. ndeysaan ñu ngi siyaara Touba Mbusoobe yëpp. waaw sama xol sedd na sama xol sedd na. ndeysaan ndeysaan. waaw ah, yal na yàlla dolli jàmm rek. aywaay amiin bokk amiin dañ bokk. barke Fallou Mbacke yàlla dolli jàmm sàmm ñu ko rek àll sàmm suñu njaboot. aywaay bokk amiin dañ bokk. barke sëñ yàlla yàggal leen si te ànd ko jërëg wér bi. ndeysaan bokk aywaay amiin waay. Ah, maa ngi sant bu baax damaa kontaan sama xol dafa sedd ba damaa daw jënd kër gi. barke sëñ Fallou Mbacke loolu de ak mbaax waaye looloo di mbaax waay loolu de moo di baax jigéen ñi mel ni yow de war naa bari lool ci àddina bi fi jamono toll nii ñëpp ko war a déglu waaye rawatina jigéen ñi de yàlla la yàlla fay yàlla la yàlla taxaw yàlla yàlla sàmm sàmm sa njaboot bu kër ak gu àll bi jeey seydi wujud su ko defee sëñ Fall nañu xam ni àddina bu tolloo ci ay lëndëm lëndëm day jar nag ñu toog waxtaan ndaw ñii ndaw ñii dañu leen a war a xamal li tax ñu andi leen fi billaahi lii ñu gis bu fekkee ña ngi koy seetaan bàyyi ko nii loxo dina dem gémmañ te du yóbbaale tib man maa la ko wax yow taxawal ci arrêt saret yi taxawal ci arrêt oto yi taxawal ci arrêt taxawal ci arrêt rombal gone ci seen grand place yi rombal ci nangam rombal ci nangam benn gone boo ci gis a taqalim ci yàlla wala gone boo ci gis am yaakaar ëllëg nga réew mi dina jëm ci kanam amatul ci lislaam ak ci réew mi laa wax la benn gone laax booy gis sa xel mii dal ci ni yow mii kat ëllëg buñ fi jógee ñun ñii fi war a toog est ce que dañ téye mi ku ci taxal dara amul gone goo xam ma nga ruggi tubay ba ci ay woom la muy njëkk a njëkkante ak di ko jënd mooy correction bu amee correction la muy njëkk def mooy lu koy may xaalis naar bi koo ci gis suntoon yi nu muy def ba gañe naar bi koo ci gis nu def ba gañe naar bi benn gone boo xam ne boo ko laañ tey faratee njàpp wala sunnee njàpp wala faratee juloo suñu ju billahi boo yoroon laa cinq cent mille te ko ci taabal ji di wër micro trottoir doo gis ku la ko wax ndeysaan fa dégg saa benn ko def ndeysaan fële ca Mariana ñi mu dajeel ay kilifa ay mu kàllaf yoo xam ñenn yor nañ ay jabar nangam ak nangam comme ci laaj sunnay julli wala mu laaj farata doo wax dara luy sunna ngay wax luy sunna luy sunnay julli man daal dinaa julli allahu akbar allahu akbar mbokk yi tegari ab jullit la allahu akbar mbokk yi ay waay te kenn ku ne yaa ngi xool ni ngay réglé sa kër kenn ku ne yaay xool li nga lijjantee dépasse kenn ku ne yaay xool li ngay fexe ba ah, natt ba doo ko tarde kenn ku ne yaay xool li ngay ba li nga bëgg a liggéey wala ka a dajee la nga dajee moom kenn ku ne yaay xool noo jënde a a woo ngir waxtaan ci biir ak nangam nangam ba Turquie fii bi nangam ak boo fa amee soxla soo xam ci misaal am yére boo bëgg a jënd wala kër goo bëgg a waxaale oto boo bëgg a jënd wala nangam ak nangam yaa ngi jënd crédit def ci sa appareil di jàkkaarloo ak di ko woo mu lay wan ya nga war a maraakis ak nangam ak nangam ak nangam ngay xool boo ci bëgg ni ko dugalal naa la nangam jënd ko loolu lépp sa àddina jarale ko te yàlla jarul la dara sëñ Fall nañu xool loolu xoolal li la àddina te yàlla jarul la dara dara dara dara kenn orienté wul sa njaboot kenn orienté wul sa njaboot bàyyi ñuy tëpp tëpp ci mbedd mi boo ci reyee boo bu ngeen gëstoo te ñaar gi mu saaga la nday daw kenn yëratul gone yi bàyyi li lu leen neex wax lu leen neex def boo gisee sareeti mbaay bi tey ci mitaa da ngay tudd yàlla siir bonkali impère yi teg ci kanam wirdi mystique ba mu dang kenn du wax boo ko doon wàññil mystique mu yokk ko di la naqaral boo duggee taximaan yi noonu boo duggee ci oto yi nangam du ñëpp nag ndax am na ñu ci yar am na ñoo xam ne xam nañ kër yi mbokk xam nañ fañ mbokk ñu ngi sàmmoonte ak loola koo koy sa bopp li ko waral lépp nag mooy ñàkk jàngal ndaw ñi rek Sëriñ Tuubaa wax na ko bu yàgg képp ko xam ne yaakaar nga da ngay def lu la neex wax lu la neex aywa salaamaaleykum. waaleykum ah Seydi waa gis nga de ah. eh, nee naa sa doom bu màggee ah. xel ma ràññee ah. fab ko su boobee wut daara jum jëm tey gëstu njàngam fu mu toll ngay xam tey jëndi téeréem ndem yaa di baayam allah ba koy yor di jàng kay yar mhm. ndem laaj na fay weer yow fay koy weeram bul joxe téeméer mbaa ñaari téeméer ne loolu motul reer mbaate ndekkeem déedéet joxel ma cinq mille dix mille wa quinze mille lépp am nga cent mille joxel te bul yéem mm-hmm. sa doom jakat moom ka ñu naan maam defal ci moom ndem bëgg nga mu tekki mm-hmm. dangaa laal point bu ama ama am solo ci jamono ji ci ndaw yi yàlla xam na ko gis nga xale yi non booy dox ci mbedd yi di xool maanaam seen façon colin gi ak seen saaga yi maanaam ak seen fëtërlu gi saaga moo man li njëkk xalaat mooy ndaw ñi est-ce que ñii lañ yaakaar ne ëllëg tey ñoo war a yenn waat ah. xool ci gaaras daaru bii boo fi jaaree rek façon xele yi ngay gis ñeme ñeme goo xam ne foo jaar nag saaga ndey waaw façon ah. colin gi ah, ak loolu nga wax ñu koy teg ci seen kanamu saret yeeg ci aji fay musique yi dara dara safatu leen dara ngi doon wax lu am solo ci wàllu Qatar mais gis nga Sénégal li seen problème ñaar yi la mooy ñàkk a ragal yàlla ak ñàkk a xam yàlla lii mooy suñu paan lii lañ paan te lii moom nit bu ko xasee paan quatre-vingt-quinze pour cent des yoo xam ne tey fi a càcc gi gën a doxe mm. fi la ñoom trian gën a doxee fi la ñoom mën a wax lu dul dëgg fi la ñoom njaalo def yooyu moom dañ ceeroo de gis nga nit dañ koo jël léegi da nga def wallaahi da nga def loo xam ne mm. bu njëkk mm. léeg-léeg daa nga def benn bàkkaar boo dañ koy def ba pare daal di tiit mais léegi dañoo roode roode ci ak moom mooy léegi yëf yi safatuñu ah, yëf yi safatuñu lool moo am càccag yëpp yooyu amul dara loo xam ne melekaanu lislaam la mu dox fi lool yaatu fi lool ah. boo ko soxla woon léegi am ko ak yeneen ak yeneen wallaahi xadis bu si wax ne aarifuuni qabla an ta'buduuni ah, fa in lam ta'rifuuni fa kayfa ta'buduuni ñun lii problème ñun Sénégal mooy li ma wax léegi mooy xamuñ ñàkk xam yàlla yàlla nag faaw nga xam ko door koo mën a jaamu léegi Sénégal ndaw ñi mm. wax dëgg yàlla xamuñu seen diine te jéemuñu ko gëstu am na lu gën a mën a bonal sama xol mooy li nga doon jujji léegi nii am na beneen waay bu koy def côté Dakar mooy di laaj nit ñi maanaam faratay julli wala taril faatiya mais ndaw ñi doomu julit ngay téye ne ko tari faatee wala xulóos bi rek muy def loo xam ne nii. du école français tubaab lay jéem a xam. moom lay jéem a jàng. man daal bu ma koy man vidéo yooyu moom bu ma koy seetaan moom. wax dëgg yàlla faratay julli. waaw sunuy julli. xamuñu dara dara dara dara 95 pour cent des musulmans. Mm. te sa faratay bopp da nga ko war a xam. a xam de. ragal yàlla it moom amu fi moom réew mi moom daanaka lu ñu neex la ñuy loolu moo ko fa ci xool fi mu ne. karim bu ñu jéemoon a tënku ci li ñu yàlla digal te mu hmm. nekk ci alxuraan bi ñu jaar ci ni ñu yare xale yi léeg-léeg ca daara ji ñu ragal yàlla bu am mbañum rus hmm. ah. réew mi dara a jàll léegi waaye xale yi ma gis léegi ci seen façon colin ji ah, ak waxin gii ak gisin gii ah lii de moom moom xam naa ne bu yàlla defaatul wat xam naa mu jëdit daal bu leen mën a tëx di daal ah, tegaat leen ci yoon ah yëf fa ñuy jëm dana yéeme lool de day dawaar lool laal nga tomb bu am solo waaye daal paaraay moom oh. nañ xam ne xoo ang fësug wa ahlikum naaraay ah, yàlla moom ah, day waxam day day caaxaan de na ngeen wattu seen bopp ak njaboot ci safara bés bu xoole njaboot gi dana ñuy yey ah, waaw kullukum raq kulukum raahin wa kulukum mas'uulun an ra'iyatihi maanaam njaboot gi moom ëllëg yomal xiyam dina la wax nanga leen doon sàmmee fii mm. nag da ngay gis Dakar gee dama fay toog léeg-léeg nga gis nit romb la mm. ànd ak doomam mm. mu sol boo xam ne nii bu sëgee mooy loolu man xaw ma lan la day ànd ak moom pour jaay ko wala daal day ne ah xale yi lu leen neex def yàlla waxul loolu de waaw moo tax nag balaa leer nag ah. ñu dem ba ci biir bàmmeel ku ciy def lu la neex ah. boo dajeeg yàlla ci biir bàmmeel wallaay di nga dajeeg man faxal masha Allah xiyamasa ku def lu la neex ëllëg yomal xiyam di nga mm. yi ni ngeen def nii école yi masha Allah ñu dem jàngi diine ñu yar leen fa yar bu mat sëkk mm. duñ génnee am mbañu grus am loo xam duñ ko def duñ la sonal waaye boo leen bàyyee ci ndaan fay fay gii mm. yow la ñuy njëkk a sonal yàlla xam na ko jaajëfal bu baax a baax ah, te wax bi dafa neex kenn ah, waru lay dagg waaye xam nga rek <laughs> jërëjëf jërëjëf wa sukran macha allah Sidi Jamil macha allah macha allah ñu ngi koy jaajëfal baax fële ca Touba Saam saan ñu koy jaajëfal di siyaar waa Saam gépp rek bàyyiwuñ kenn ndeysaan mbooleem Saam yi nekk foofu rek bàyyiwuñ kenn Saam Sidi Jamil wax bu ñëwee moom itam ndeysaan day def ay taaliqaat yu am solo saan macha allah fa tabarakallah yu am am solo gis nga sëñ Fall wallaahi nax sim naa la gone yii ma gis ci bu ñu àdduut bàyyi leen nii man ñun bu fekkee ñun dañoo gëmal sëñ Tuubaa nañ ko wax loolu yomb na su fekkee su fekkee itam parents yi nga xam tey ñoo jóge seen dëkk baay ak seen dëkk maam yi ñëw dëkk ak sëñ Tuubaa ñoom itam su fekkee léegi dañoo gëmal ko wax ndax mënoon damaa gëm sëñ Tuubaa pare di bàyyi sa doom muy def lu la neex ci bi di wax lu ko di sol lu la neex loolu mënta ne da ngaa war li neex sëñ bi ndax li neex sëñ mooy li neex lislaam boo nee sëñ nag mooy Seexul Xadiim moom laay wax man waaw boo nee sëñ war a wax li neex sëñ bi mooy li neex seexul xadim ndax lu neex seexul xadim mooy li neex yàlla mooy li neex yonent bi ndax ci moom la ci loolu la doon dox mais mënoo jur sa doom na man damaa joo jàpp nag ñu naan njabootu kinaara ba na njabootu kinaara yàlla def leen ay njabootu nit yow nga ne njabootu kinaara laa yor pourquoi nga def ko ak njabootu kinaara kon yow yeddi nga wax yàlla so woo say naa insaan bu waay léegi aman umu woon ala wax wa wax na la fi taalu fi amee ni am foo foo foo xam ne foo ni man sunu maay may ku ma neex doomi góor kese may ku ma neex doomi jigéen kese may ku ma neex ay góor ak i jigéen waaye ma def ku ma neex nga nekk ak xiim doo am doom nee man yàlla maa ko def léegi yàlla moom la gàll responsabilité bu tol noonu mu gàll la ko moom yàlla subhanahu wa taala la ko nga lànk daw responsabilité sëriñ bi wax na ko léegi qu anfusakum wa am wa qu anfusakum qu anfusakum naara na ngeen fexe ba fegul seen bopp saara waaye bu leen ci am de bu mu leen doy ahli nag kenn génnu ca koo yilif rek ci ahli gi la bokk doomi ci ran jarbaat di ci ran njaboot gu sew gee njaboot gu dijj ko gàttam dépassam ci ahli gi la bokk allahu akbar bu yi day gën a yaatu loolu moom mooy képp ku wékku ci yow ci sa ahli la bokk waaw waaye bu dee kër gee képp koo xam ne yaa ko gàttal ci sa ahli la na nga ba fegal ko sawara mais mënoo tey xale bi di la andil ngay lekk mu lay jox ngay naan ah xam nga am na lu la mën mais wala yow nga koy jox muy lekk nga koy jox muy naan te nga ni mënulu ma ko dara te nekk du dëgg képp ku ne sama doom ji day wax la ko neex du dëgg doo mënoo di ko jur jur ko fa nga ko war a jure ci sunna farata si yàlla sunna Muhammad di ko jox muy lekk di ko jox muy naan te ni mënulu ma ko dara amut war sunu borom ne qu anfusakum wa ahlikum naara fexe leen fegal seen bopp sawara waaye da ngeen fegal seen njaboot gi sawara képp koo xam ne fegaloo sa njaboot gi sawara bu yaakaar ne mucc nga ndax men yow nga fegu doyul de ndax boo nekkee yàlla da lay taxawal taxawal leen diw nga ne ah mu diw mi sa dooma nga ne waaw ndax doon ko jàngal la njëkk laataan ndax jur nga ko fa nga war a jure allahu akbar ci ko jure ci tapal ko laaj la ndax jàngal nga ko ndax yar nga ko ndax nangam ak nangam moon alquran waxa ne wal baladu tayyib yaxruju nabaatuhu bi isnabi wala si to laa yaxruj illa nakida allahu akbar nit ki boo am gàncax gu baax da ngay xool ab akbar ñuy dégg ñuy ba ay baykat ñu ngi may dégg ndax man baykat laa da ngay xool ab sonjaan mooy suuf soo xam ne nangu na gëjës na koo bay suuf suñ gëjee bay nga dem gajj ko gor ko mu baax fa suuf su jóg nooy nooy nga ji fa saw jiw bu nawet amee ku ko góob nga góob ku góobul nga góob incha allahu rabi waaye doo ci suuf soo xam dafa booy ak joor joor gu booy nga xam yàgg nañ koo bàyyee bay ba mu booy nga dem di fa def sa suuf wala nga fa def sa dugub wala nga fay def sa ceeb doo góob bu tawoon ba asamaan si beq tawit du tax nga am dara moo alxuraan yi suuf su baax ci la ñuy ji gàncax gu baax loolu mooy lan mooy yow góor gi na nga fexe wut su baax soxna kenn du ko tànn ci taar ci jikko ko koy tànn yow salaata waxal na ko taxayyaru li anfusikum fa inna al-arqada saassa allahu akbar na ngeen xool seen ndoxum góor fu ngeen ko dugal ndax si nit day roy sëñ Fallu lu ku la neex rek nga takk de ku la neex rek nga ma jël ma jël nga jël leen déedéet taxayyaru li anfusikum fa inna al-arqada saassa na ngeen xool fu ngeen dugal seen ndoxum góor ndax si nit day roy dama ci askan woo xam ne xam na leen ci njub xam na leen ci mbaax xam na leen ci ay sëykat lan ay muñkat lan nga jël fa soxna boo ko jëlee doo ko réccu loolu nag moo amatul léegi gars yi da ngay gis ni ci internet bi rek mu gis na ngir bëgg a takkante doo ko digal jaamu yàlla boo ko digalee mu bàyyi la lim bëgg rek ngay def am na ñoo xam bu nabee seen coro wala ñaf seen jabar lu mu leen wax ñaf ko nit ki fekkee sa jabar nga gën yàlla kon yow kay doo dara ci société bi tekki dara mën ñu rey la doo dara nit ki waru laa mën a fexe ba teqale ak jaamu yàlla ci loolu nag ci nga mën a doom ju baax doom joo xam ne ëllëg ku lay doon doom juy tekki ci pénc bi mën na waxuma tekki yi ñu tekki ndax ñoom seen tekki yaakaar mooy ku amee million ku amee milliard ku am ay kër ak teer ak oto waxuma yooyu man tekk diine laa wax koo xam ne bu yonent bi doon tëll doo daw ci bu saxaaba yi doon tëll doo daw ci la nga nekk bu seexul xadim doon tëll ak njabootam doo daw ci la nga nekk kookoo ko tekki mais waxuñu tekki yi nga xam ne du dara yu àdduna dong ay peñax dong la waykat boo xam ne ko innama dunya xayaalun aarib xalla maa yabqa axbaaru tuxas àdduna day tus ay jeeneer képp la ak ay litili yoo xam ne du dara kon daa jar rey sa bopp daa jar ngar-ngari ngar-ngari ju bari ji mooy lan nanu jël gone yi teg leen ci yoon jàngal leen seen diina xamal leen kan ma seexul xadim nëbbatukum maan ala kaddin badaa bu leen yaakaar na maa toogoon man seexul xadim tax ma am lii ma am xaw na maa dee dañ naa lu mburu dañu cib taal man sëñ Tuuba alxuraan la xadd xalaat naa insaan fii fii kabadin doomu aadama dama ko bind ci coono nga bëgg ñëw ci àdduna pour nopp na pour lan yàlla nu fenn pour nopp na njaboot gi nañ leen yar nañ leen teg ci diine nañ leen ku fi jël sam xar yar ko ba mu mag te yor ko ba mu mag te yaroo ko billahi balaa mbëkkee ne looy bëgg li ma la wax yéen ñëpp gis ko bari waa na jur siri doom bàyyi lii ñu mel lu ñu war a lu leen neex ba ñu màggee avant ñu jël alal kenn si alal la sàcc bala ñu rey kenn ñoom la rey wala ñu tëdd seeni jabar naa nga a te yaay baayam lu ko waral ku ko musaa laal nga tudd ku ko musaa laal nga yóbbu ko police ku nangam nga yóbbu ko police pour lan nañu jàngal ndaw ñu teer leen ndaw yii nekk ci Tuubaa moom ñii ma dunoo yërul yow gën a gu juddoogul firtagoo ci nen di laaj xaalis kooku fan lay liggéeyee fan lay tekkee ci fii tëggoo cim nen laa la wax war a jàng ca daara ja nga war a nekk jàng ngay laaj nan ngay gañëb xaalis nan ngay gañee nan ngay gañëb xaalis nan laa def ba gañee naar bi nan laay nangam ak nangam nangam te xamoo dara xamoo sa diina xamoo say farata xamoo dara sama rombaay bu waxee yow nga ñàkk koy teggin réew ba dof jël seen MP di ko teg ci dëkku Serigne Touba bi di ko musique fu leen neex yóbbu koo ci tudd mu turee la samaam daa réew ci atu xiifa loolu mooy lan te ndaw loo jóge ci kër rek génn koo tudd doom mu mer koo jàppandoo fii mu ñëw ñaan intervention amul genn doom ji ci amul kilifa wala koo xam ne tey police wala gendarmerie ramasse sa doom balaa jant sa ñoom ñëpp bay dem ci kër police ak gendarmerie di leen tinu ak di fayu bu fekkee dañu leen a fayu léegi rek li ngay fayale sa doom kay yar ko ba kenn ko jàpp moo gën suñu Fall mayetu soote tàggoo incha allah 88 la 628 19 05 xam naa suñu fàllu rek dañuy dem sax ca daari ñeen mii nag daanaka yaakaar naa waxtu jeex na tàkk-tàkk 11h la ñu waroon a taxaw xanaa lii yéen a ko ci yokk rek waaye fa tabarakallah waxtu yi mat a sëkk 88 la 628 19 05 88 628 19 05 kon xam naa rek auditeur bu mujj wala kii rek incha allah ñu jël ko daal di tàggatoo incha allah rabi ndax xam naa fekkee kenn yëglu nag yooyu fekkee kenn yëglu dafa mel ni am ko ne ci ligne bi kon ñu jël ko rek salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi siyaar baax ku baax kooku. Maguette Sow Touba am solo. ah sëñ Maguette ñu ngi siyaar baax. ñu delloo ziar wér-wér. alhamdulilah takkala. waxtaan am na solo de. wallaay ndeysaan. wallaahi sama xol sedd na. ndeysaan alhamdulilah. ñi nga jàpp de baax na trop. ndax yàlla ndax yàlla. ñun ñaa ngi lay déglu bu baax a baax a baax. alhamdulilah kon alhamdulilah. waaye jamono ba yàqu na yàqu waaye ba mu see man de. waxuma sax gone yi dem ni di liggéey paas mais gone yi xam ne ñoo toll ci raam ak jàng dox. dama mm. gis ci seen yaay yi day bu leen di yare toog ndax téléphone da leen di gënal seen i doom ba duñ ko tal. moo leen gënal moo leen gënal. dàq seen doom ci benn mën a liibu ci seen téléphone. ngir merci xooloon xooloon. ñun góor ñi suñu wàccee. daanaka uh-huh. guddi gi la wàcc xale yi nelaw ñoom ñoo nekk ci kër yi. Mm-hmm. ñu ngi jàppale ci njaboot bu baax a ah ak wér. Uh-huh. bisimilah te xale yu bari fi mu daanaka téléphone yàq nañ leen. yàq nañ leen yàq nañ leen. a wér demee ba dem nañu ba am ñaar fukki at ak juróom doo yor téléphone. mais léegi-léegi xale boo xam treize ans yor téléphone. yor téléphone looy lay def boo defoon ci moom rek téléphone bi doo koy def ci moom beneen bi. wallaahi wallaahi. te nit ñi bàyyiwuñ xel loolu ndax seen bànneexu doom. déedéet déedéet déedéet. adduna bi dafa jeex ba pare. jeex na. xam nga yàlla ni ni ko ni fi nekk lépp da ko fiy jëlee. soxla ci àdduna moom ay bien. allahu lépp lay dem. dañuy gëm yàlla tey jàpp na moom a wér ak a wér. wér nga wax yal na la yàlla fay barke ndax yàlla amin amin waay amin. jërëjëf Ndiaye amin sëñ Maguette Sow. jërëjëf Touba mu soobee. macha allah sëñ Maguette. xam naa ni sëñ Maguette Sow moomu Touba mu soobee yaakaar naa ni fii la ñuy tëjee incha allah rabi rek nag leen ci ay mbokk daal di. Eh, yiwi jataay bi ba yeneen jamono incha allah rabbi wala ba beneen talaata wala ba àjjuma ci lislaam ak jamono ci ànd ak sëñ Moussa Thiam naa rek dañuy siyaar eh, leen ci ay mbokk ku ci mel ni sëriñ Moussa Ndiaye fële ci ko siyaar baax nekk del quartier foofa siyaar waa Touba Firdawsi gépp nag bàyyi ñu kenn eh, ku ci mel ni soxna say jabaay ñu ngi ko siyaar baax a baax soxna Yoone Ndiaye ak Gay Faam waaye soxna Fatma Lum soxna sëriñ Taala Mbeng ak sëñ Abdou Thiaw baa soxna Walti Ngom ñu ne siyaar lu baree baree bare di siyaar baax nag euh, ku ci mel ni sama yaa Seyda boobu yor école bi foofu ca Touba Firdawsi jàmbaar la loolu wax dëgg yàlla ci élèves yi macha allah yàlla na ko yàlla taxaw jàppale ko baax a baax mm, moo ko paaraade élèves ak élèves yi rek ba li ñu yéene ci élèves yi lépp suñu borom sotti ko mu muy njàngaleem Sëriñ Tuubaa mi ñu dugal ci ñoom daal yal nañu ci yàlla defal ndam bi jëy Seydi wujut mu jàmbaar lool nag jàmbaar lool moom yaa Seyda boobu di siyaar parents d'élèves yëpp rek bayuñ kenn waaye noonu lañuy siyaare bu baax a baax a baax baax euh, ku ci mel ni Soxna Sala kamara di sunu xarit di sunu jigéen ak borom këram sëñ Pape Singor waaye itam ak euh, mbokkam moom muy Soxna Soxna Thiaw Soxna caw ña ngi koy siyaar baax a baax a baax a baax moom itam di mbokkum Soxna Sala kamara moom waaye itam noonu lay siyaar baax sëñ Dame Sall ak mboolem waa Firdaws gépp ak waa këram sëñ Dame Sall ak waa këram gépp ñu ngi leen siyaar ndeysaan di siyaar sëñ Pape Calaw ak euh, soxnaam soxna Nogoy waaye di siyaar rek euh, Baye Alé Ndiaye suñu xarit suñu soppe Serigne Bërgo Ndiaye ñu ngi ko siyaar baax a baax a baax itam di siyaar baax maire Ñang ak soxna Jami ñu ngi koy siyaar baax siyaar ku yeewatu waa Firdaws rek kenn waaye noonu itam nañu siyaara bu baax a baax a baax a baax maire Kébé te bopp tëri waaye sëñ Gumbaloo ci bopp tëri waaye itam soxna euh, Mbaye ak ñang foofu ci bopp tëri ñu ngi di siyaar baax baax baax baax di siyaar bu baax baax soxna jëtuloo waaye itam ku ci mel ni sëriñ Jibi Njaay ak sëñ Paam Njaay foofu ci bopp tëri ñoom ñëpp ñu ngi di siyaar baax bàyyi ñu kenn képp ku yow bopp tëri rek ñu ngi di siyaar bu baax baax baax baax baax baax soxna moom i faal duñu ko fàtte mukk ndeysaan ku bëgg émission bi la moom itam ndeysaan waaye noonu itam la ñu siyaara bu baax teenu maam Seex soxna caaneka ak soxna Fatma Ka duñ leen fàtte benn yoon di siyaar bu baax a baax nag bu Mbusoobe gépp sëñ Moussa Sylla moom itam ak soxnaam soxna Fatim ñas waaye itam soxna Lalla Ndiaye sëñ Siidi ak soxna Nday Aan mboorem ak euh, Ibrahima Ibrahima ñoo ngi ko siyaar bu baax a baax a baax euh, nekk rakk ci sëñ Moussa Sylla ku baax waa ji te bëgg émission bi moom itam di siyaar suñu xarit la lool moom lool sax wax dëgg yàlla macha allah waaye noonu itam nañ siyaar bu baax a baax a baax a baax Euh, ñi nga xam ni ñooy yeewoo ci garage Dakar Ansa garage jàkkati yére yooyu nga xam suñu xarit suñu soppane suñu sëñ daam ak euh, sëñ Baara Ndong ak mboolem ñu yeewoo foofu rek bay ñu kenn waaye noonu dañuy siyaar waa Ansa garage ba tey nekk marché Daaru Manaan suñu xaadim ka suñu xarit suñu soppe borom Daaru Moxti Baas waaye tam ku ci mel ni sëriñ Abdoul Ahad Gaye waaye itam ku ci mel ni itam sëriñ Mori Kobar ak mboolem ñu yeewoo foofu ci marché Daaru Manaan bay ñu kenn ñu ngi siyaar baax ñoom ñëpp rek sëñ Baara Ndiaye ñu ñëpp siyaar na leen baax baax waaye noonu itam la ñuy siyaara bu baax a baax nag waa pénc mbay waad ko ci mel ni soxna yaaram ñang mu ko siyaar lu bëree bari waaye ku ci mel ni soxna nuuxin soxna nuuxin ñang waaye ku ci mel ni itam euh, soxna faatu géy soxna faat géy ñu ko siyaar baax soxna faat géy waaye ku ci mel ni itam sëriñ ibrahima baakum yoro foofu bitig ñu ko siyaar baax di siyaar baay mbay yoro foofu bitig moom itam ci pénc mbay waad waaye di siyaar itam baay kanj nekk imaam yi jàkka yi pénc mbay waad jooju waaye itam noonu lañ siyaar bu baax a baax a baax ku ci mel ni sëñ Ousmane Camara ci péncu Baay Aada mboolem ñi Ka sunu nijaay sunu xarit waaye itam sëriñ Mori Ka moom tamit sunu nijaay suñu xarit waaye itam ku ci mel ni sëriñ Daawda Ka ñu ko siyaar baax a baax sëñ Mourou Karaka Kotiir fële ca Njenne ñu ngi ko siyaar ca euh, Marsokaas borom Njenne ne lépp lu ma sol moo ko ñëw ñu ko siyaar baax a baax sëñ Mourou Karaka di siyaar bu baax baax ñu yeewoo foofu ci euh, xayra ak péncu Baay Aada ñoom ñëpp rek bàyyiwuñu kenn ñu ngi lay siyaar lu bare bare waaye noonu itam lañ siyaara bu baax a baax sëriñ Sidi Kan ca Firdawsi waaw sëriñ Sidi Kan du ma ko fàtte mukk ndax itam wax dëgg ñaw di la jox moom mënu ko fàtte nga koy siyaar bu baax a baax di ku baax nag eh, borom kaneen ko tiir fële ca marsokaas sëriñ Sidi Kan lu bare bare bare ñaan yàlla wéral loxo bi yow itam jëy Seydi wujut ku la defal lu baax na nga ko wax ba ñëpp xam ni defal na lu baax wax nga ko waaye itam noonu laay siyaare képp koo xam yaa ngi bàyyi xel koo xam ne yaa ngi doon teewlu kilifa yu baax yi nekk ci dëkk bi te bëgg dëgg dëgg ñor leen dëgg ñeer leen nga xam ne donte duñu woote waaye day déglu émission bi ñoom itam ñu lay siyaar borom kursi yeeg borom euh, alquran yeeg borom xasaayid yi ñoom ñëpp rek nga xam ni ñu ngi sàkk ci ñoom ñaan te di ñaan waaye ñu ngi sàkk ci ñoom ñaan baax a baax baax ñu ngi sàkk ci ñoom ñaan ñu yor seeni kurus ñu yor seen jukki alquran ñu yor seen xasaayid ñu yor seeni i lawraat ñoom ñëpp daal ñu ngi sàkk ñoom ñaan ay kilifa yu baax yu bëgg dëgg ñu ci dëkk bi yoo xam dëgg rek lañ ñor dëgg rek lañ bëgg ñëpp rek ñu ngi leen siyaar ñu ñaan yàlla yàggal leen fi defal leen taw féex siyaar baax sëriñu daara yi ñoom itam ak jàngalekat yi arab yi waaye itam jàngalekat français ñoom it ñu siyaar ku bëgg dëgg daal ñu lay siyaar foo mën di nekk waaye noonu itam lañuy siyaare ko ci mel ni suñu mbokk ma la ca ndaam sëriñ galas Diop ndaam waaye am na mbokk moo xam ne itam ndeysaan ku woote woon na kara ku jox sëñ Abdourahmane Lo ca ndaam moom itam ne du bàyyi day bàyyi xel saa su ne ñu ngi siyaar baax a baax di siyaar képp kuy bàyyi xel émission bi foofu ci ndaam kii di baax yooyu fi ne ñu di lay siyaar baax waaye noonu lay siyaare nag euh, sëñ Maam Mor Mbacke xam sa diine suñu xarit suñu soppe sëñ Mourtala Mbacke moom Cheikh Amadou Fadal Mbacke a baax a baax waaye Cheikh Amadou Rafahi ñoo ngi koy siyaar baax mu Cheikh Moudou Bissa waxee ni ko ñun dañ ña nga ca mun waaw ñun da ngeen fa nekkal moom sëñ Bassirou ndeysaan sëñ Bassirou mu sëñ Moudou Bissa Dieng sëriñ Abo Mbacke moom sëñ Moudou Bissa Dieng ndeysaan benn suur mu ma ni mbaa xam nga ko ndax yàlla kon ndax siyaar bari waaye sëñ Euh, di suñu wëlër di suñu xarit moom itam ñu ko siyaar lu bëree baree baree bëri di siyaar bu baax nag képp koo xam yaa ngi bàyyi foo man di ne lu bëri rek waaye itam di siyaar sama xarit yële di jaaykati xasaayit fële ca jumaa ja ku ci mel ni Serigne Malick Wàcc waaye ci mel ni itam euh, sëñ Abdou Ahad Daraame ak euh, ku ci mel ni sëñ Bàcci ak mboolem ñooñu nekk foofu ci jumaa ja rek ak sama doom baay boobu sant Ndiaye maa ko siyaar baax ku bëgg émission bi itam di sànn ne da koy bàyyi xel ñoom ñëpp daal di ay jaaykat xasida ne foofu ci jumaa ji ñu ngi lay siyaar lu bëree di nga xamal rek ne émission bi talaata lay am 21h30 ba 23h euh, léeg-léeg nag lu bari ci bëccëg yooyu moo tax ñu bari yaakaar ne bëccëg gi lay daw ba am ñu bari gi mbokk yooyu sax na ñoo xam ne kara doon ci bëccëg gi mooy jaaykat xasida yooyu waaw émission bi guddi lay ngi jaar seen bokk seen oustaz Mbaye Diagne Touba dañ koy faral teg lu bari bari ci bëccëg gi ay léeg-léeg 2h léeg-léeg 3h heure yooyu comme raw rek nga di ko jàpp ci heure boobu waaye di siyaar nag bu baax a baax a baax a baax rek ki nga xam ne moom damay faral di wax ni day sama xarit di sama kilifa di sama soppeem di sama lépp eh, di nitu yàlla ku baax nag yàlla ku baax muy sëriñ Bassirou Dieng Faye ci Touba Darou Khoudoss sama lépp la lépp nag moom dara génnut sama lépp la moom sëriñ Bassirou Dieng ko ñaane yàlla mu yàggal ko fi lool bi jëy sëdi wujud yàggal ko fi lool bi jëy sëdi wujud moom sëriñ Bassirou Dieng xarit la bàyyi la sëriñ la lépp la daal ci man taxawu na ci zaahir taxaw na ci baatin dan na fi yàlla yàggal bi jay sëriñ bi dund waaye noonu lay siyaara bu baax a baax a baax nag euh, mbooleem koo xam yaa ngi lu bàyyi foo man di nekk foo man di dëkk rek ña ngi lay siyaar lu bëree bëree bëree bëree bëri di siyaar nag waa rajo bi ñoo xam ñoo nekk personne bi nekk fii ci kër gi ku ci mel ni euh, Baye Cheikh Gueye Ridial looy faral di wax siyaar bépp ci loxoom lañu koy teg waaye ku ci mel ni itam euh, Serigne Oustaz Diagne Faye waaye ku ci mel ni itam Cheikh Abdou Gueye Oustaz waaye ko ci mel ni itam euh, euh, sëriñ maam góor mbay waaye tam mbay ma gën a caam waaye itam soxna Fatma Ndiaye waaye itam soxna Warxa Fall ak euh, yaa Seyda Xujja nga xam ne moom ngeen daa gis mu toogal fii ci technique bi waaye tey nag sëñ Fallou ko ci mu koy ñaan moom yaa Seyda moomu waaye di kilifa kër gi sëriñ Mahmoud Diop Thiat yàlla sàmm ko aar ko ko bi jëy sëriñ bi waaye itam sëñ Moussa mi nga xam ne moom laay àndal émission juma bu ne bu heure bi jotee 21h30 ba 23h l'islam ak jamono suñu soi càmm moom itam maa ko siyaar baax a baax di ku bàyyi xel siyaar lu bëri xam ne moo toog ci technique bi di ko siyaar baax taxaw la def nga nekk mag te nekk mag amu ñam yàlla la bi a a baax di siyaar ñi nga xam ne ñoo ñi moom toujours dañu leen di siyaar baax a baax a baax ku ci a yëglu ñu ngi a baax ci daaru tansil waaye ku ci ni itam sëriñ moor jaañ fële ca xaayira moom itam nee na du tardé émission bi mooy ña ngi koy siyaar baax a baax waaye itam ku ci mel ni itam sëriñ ji sëriñ Sidi Sidi Jamil Sidi Jamil borom xam mag boobu ndeysaan moom itam ñu ngi ko siyaar lu baree baree bari dugg na ñaari yoon moom Sidi Jamil ndeysaan macha allah waaye ku ci mel itam ku baax kooku dëkk Touba te nëbb turam xam naa ni kilifa la ñu ngi ko siyaar baax a baax a baax moom itam ndeysaan lu am solo la wax mbokk moo dëkk Touba te nëbb turam waaye itam waaju baax moom itam kilifa la euh, te itam moom borom xam borom xam-xam la xam-xamam fa tabarakallah ku ñu nangul xam-xam loolu xam-xam zaahir ak baatin macha allah yàlla ko baax waaye itam ku mel ni Serigne Bey moom itam sant jenn ñu ngi ko siyaar baax turam di sàkku ci moom ñaan baax moom di saan di siyaar nag njaboot saa jenn gépp rek ñu ngi di siyaar baax di saan seex yoonu mur gépp bayuñ kenn day saan waaye itam noonu lay siyaaree itam waaju baax dafa ku ci mel ni soxna ummi sekk moom itam ci soobe ñu ko siyaar baax a baax moom itam di ku ci mel ni Serigne Maguette Saw moom itam Touba lu baree baree baree bëri mbokk yi nga xam ñoo jotoon a yëglu ci émission bi kenn mën leen a fàtte ñu ngi siyaar lu bare bare di siyaar itam ñu ni topp ci internet bi mooy Facebook YouTube ñoom ñëpp ndeysaan euh, ñu ngi leen di siyaar lu bare bare bare bare bare di ñaan yàlla sàmm leen aar leen taxaw leen di leen wax ne émission bi mooy émission ñu bëgg dëgg li may faral di wax nag filaate yi samay kàddu li may faral di wax ne lii ma nekk bëgguma ci xarit ma tagg rëgganuma ci noonu ma ŋàññi la sëñ Tuubaa waxan kara bi mu jógee ci tukkib géej gi ci 1902 1903 ñu leen ko yóbbu gànnaar fii ci Mbacke ba fii ci Mbacke fii ci Daaru Manaan kii ci Touba boobu foofu la nekk fi la ko maam Thierno wutal kër mu nekk boo bin ko leen ko yóbbu gànnaar lu leen wax ne lam addu sadiqan wala ak af adowa wa simaami bi am rëganuma ab ab sopp rëganuma ab noon waaye yaakaaruma ab xarit sama nas koog ruuma ki loxol yàlla waaye foofu laa féete lu nit mën def lu nit mën a wax ku yor say pexe ak loo mën a def lépp yëkk naa ko subhanahu wa ko man yaakaaruma ab xarit ma ciy dimbali ragaluma am noonu ma ci boo xam ni danga ma ci wax lu la neex wala nga def lu la neex lu neex waaye defal waaye ci dëgg laay teg tànk ci laa koy teg ci laa koy teg ba këram muy wujj seexul xadim si amul ba ma xaddu so nit mënumaa felwal nga yóbba ci lenn lu dëgg su ma noppee wax dëgg nag arrêté bàyyi ay wax incha allahu rabbi mënuma toog di dëgg mu neer naññ ni ma ne ko bàyyi di wax ay tappale ak i nar ngir alali adduna wër ngir nangami adduna xalaatuma ko te dama ko def ndax kenn ku ne di nga layoo sa loxol ndijoor di nga nga di nga jiital sa loxol ndijoor mooy di nga ndijooroo sa loxol ndijoor da nga ko laloo kon nag nañ nekk ci dëgg sax ci dëgg ilaa xiyaami saa dëkk bi nag ak réew dëgg la ñuy bañ ku wax dëgg ñu fexee la ku wax dëgg ñu jéemal la waaye lépp jéemal na ko yàlla la Yuusuf wax laay wax ak sëñ ñu ahabu ilay maaye di wara bi yow yàlla ndaw si ñu wax ni maa ko doon sàkku te sàkkuma ko wallaay la si man man Yuusufa ma dugg kaso moo ma gënal ñu ma ni li ma tiimaan ci ndaw sama nangu ko waaye foofu laa féete ba itam foofu rek laa féete allazina yuballighuna risalatullah wa yaxsanuhu wala yaxsanu ahada illallah wa kafa billahi hasiba foofu rek laa féete foofu rek laa féete lu neex waay waxal lu neex waay defal waaye nit mënta tax ba lii ma nekk incha allah ma arrêté benn paa laa la wax ma arrêté ku mën a wax du kenn ku mën a wax ba ma arrêté benn paa la wax du kenn ku mën a jëf ba ma arrêté benn paa xanaa ma dee rek ko fekk wala mënatu ma ko su boobaa rek ñu xam ne loolu yàlla naa ci yoonu yàlla ba yàlla jël ma su boobaa itam ma xam ne ñi fi njëkk ñi fi jiitu woon ak ñi fi nekkoon dëgg lañ bëgg di bañ ak neen ba yàlla def li leen def dëgg laay bëgg di bañ ak neen ba lu yàlla dogal ci man neex na ma lu yàlla dogal ci man rek damay daal di neex incha allahu rabbi in uridu ila islam ma taatu wa ma tawfiqiya illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen